asalaamaaleykum mbokki téléspectateur yu Leral TV Leral point net nuyu leen jox leen bu baax waa daal di amaan mbégte contentement di jàkkaarloo waat gen yéen seen plateau spécial ak Korité comme ni ñu koy defee événement bu jot mais laataa ñuy dool dara dañ leen di baalu àq bu baax a baax tey di leen baal bu baax a a baax ci julli nga xam ne jóge nañ ci. di ziar bu baax a baax kilifa diine kilifa aada yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi di leen ñaanal fan gudd ak wér-gu-yaram suñu borom bàyyi leen ba. ci kanam euh, ñi ñii ziar bu baax a baax ñi nga xam ne ñu ci loolu hôpital yi tëdd suñu borom may leen kàttan ak wér ba mën a dellu seen ñi nga xam ne caabi di leen féete ginnaaw suñu borom may leen liberté ba mën a comme koy defee à fois xam ngeen lu mu ci wét benn yoon dama boo xam ne gisante wuñ mm-hmm. durant mois de ramadan bi yëpp ma demoon ko loolu tamit xartum ak Saliou ci réew yi ma daal di koy nuyu ba bàyyi ko <clears throat> ñu ngi lay fay bu baax mm-hmm. di nuy bokk àddina yëpp rawatina sunu bokki Sénégal waaye rawatina bokki njàmbur di nuyu kilifa diine kilifa aada ñaan gi nga ñaan yàlla na ko yàlla ful eh, ñëpp jote ci ci kàttanu yàlla ak mbaax awa maa lay nuyu baax di la ziar di la santit nag mm-hmm. dëgg koor gi yëpp daanaka gisewuñu waaye alhamdulilah rabbil alamin suñu borom may ñu gisewaat mm-hmm. ñu lay nuyu di la ziar di nuyu oustaz Makhtar Fall mm-hmm. di ko ziar bu baax oustaz Cheikh di ko nuyu di ko ziar di nuyu suma xarit suma frère gouverneur muy Serigne Diop. Mm-hmm. Euh, styliste moom it grand tailleur. moom it euh, di nit ku baax maa ngi koy nuyu ak euh, di ko gërëm baax ci woyof gi. Mm-hmm. xam nga xat na trop. xat na trop xam nga tailleur yi fi mu ne nii. xat na waaye bi mu ko waxee dana amul benn problème. Mhm. ndax moom Louga moo ko ñor Sénégal ko ñor. te loolu ñu ngi ko ci ñaan yàlla tawféex yàlla na ko yàlla defal. di mhm. nuyu Babacar mi réalisé émission bi ak mbooloom koo xam ni yaa ngi bàyyi xel jamono bi émission ñu lay siyaar bu baax a baax a mhm. baax. jërëjëf la baax a baax am mbégte contentement à chaque fois di bokk ak yow plateau Imaam. maa ngi lay nuyu waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. ñu ngi baax. di nuyu sama xarit sama mbokk Serigne Diop. Mhm. di nuyu aussi Serigne Gaye yi ko yàlla di ko ñaanal yàlla jamono bu nekk. yàlla baaxal kàddoom. yàlla gunge ko ba ci kanam yow tam yàlla gunge ko ba ci kanam. suñu jarbaat Babacar Diop moom tam ñoo ngi koy ziare bu baax di ko ñaanal yàlla en tant que émission bi. di ñaan yàlla li ñu fi bëgg a wax nekk loo xam ne day jëriñ xel bi day jëriñ société bi. day jëriñ di la gërëm bu baax a ci invitation bi nga xam ne nangul ngañ ko Serigne. waaw ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum. soxna wa maa ngi lay bëggee maa ngi nuyu waa Leral TV di nuyu àdduna bi yëpp di nuyu suñu mbokk taalibe yi ñu fekk. ñu mm-hmm. baari comme ni ñu ko waxee rek Oustaz Fall ñun comme Louga daal moo ñu dajale te ñi mu dajale wax dëgg yàlla mat nañoo dajale. Mhm. ndax boo gisee oustaz gis ngaari rek. ñun mën nañoo sax bañ a bokk. Mhm. waaye nag seen woyof moo tax ñu boole ñu ci tamit ñu nekk ci Louga di bay suñu waar. nekk ci yitte yoo xamante ni si daf koy bàyyi ñëw ndax leeral leeral boo ko déggee rek dañu war a ñëw taxaw mm. te nuyoo bi nag moom tey dana xaw a jege ndax dafa am ku ma nekkaloon di doon liggéey ak moom yàlla jël ko fi mm-hmm. presque Xadi Diop war nga ko Xadi waaw waaw ñëw doon liggéey yàlla jël ko ñetti fan laa amagul ko nag ñëw place bi moom ne mm-hmm. nekk xam naa yaa ngi koy gis yi moom ne ni mm-hmm. gën a ñaanal di ko ñaan oustaz mu dolli ko ñaan rek yàlla oyofal suuf si kawam. ñu àggale la gërëm bu baax a baax ci invitation bi nga xam ne nangul ngeen ko comme téléspectateur da ko gis ne des na keneen koo xam ne tamit war naa ñëw muy Dame Gueye war a neexal plateau bi ba mu neex tonton Ngari. Hmm. naa la de. maa la raw waaw. Hmm. maa de raw foofu. noo dundee koor gi. waaw sant ko yàlla sama borom. Hmm. mi nu may nu fekki ko. ci ci di ko ñaan lu nu ci woor rek. ngir jubluwaayu topp ko. yàlla na ko nangul. rëcc na ci bu ñu ci am yal nañu ko jéggal. Mhm. ndax it moo moo ko santaane. waaye ñu ngi ko sant bu baax. ndax euh, am na ñun ko àndaloon fekke wuñu mhm. kon fekkee te it seen yaafu si yóbbuwu leen. sunu njàmbaar bàyyiwuñu fi. Mhm. waaye looloo neex sans borom. comme sëriñ ñi ngi lay jàll soxna soosu nga wax wala yëgu ko tey maa ko doog a yëg. moo doon nekk ci place bi foofu. Euh, yal na ko yàlla xare àjjana. ndax it weer wi dem dal na xel. Mhm. sooru Ramadan Mubarak dal na xel. mais aw daal ñu ngi santaat yàlla bu baax a baax euh, yal nañ ko woor déwén yu bëree bëri. te at mu ne yàlla dàq morom ja na yàlla mhm. nanguñu suñuy koor ak suñu jaamu yàlla. ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. Mhm. mais daal alhamdulilah rabbil alamin sant nañ a a a yaatu ko dégg mu nekk mu doon weeru jéggal weeru ngëneel lan ko mën a wax ci weeru koor jërëjëf euh, soxna Awa ñu ngi lay ziarewaat mhm. di jaale mbokk moomu soxna Xadi mhm. yàlla defal ko ay àjjana yu yaatu yaatu te yàlla bàyyi ci gannaawam njaboot gi mu bàyyi yàlla na ci yàlla teg loxo weeru koor bu fekkente ne ñi ngi koy bëgg a décrire mhm. dañuy gis ne mooy weeru jàpp jàpp bañ a lekk bañ a naan waaye jàpp itam ci jaamu yàlla yi nga xam ne jullit moom la ko sant waaw mhm. jàpp itam ci lépp loo xam ne day yàq koor mhm. waaye nag jàpp yitam ci góorgóorlu ba sa cër yi nga sàmm ko mhm. ndaxte weer la woo xam ne suñ borom subhanahu wa taala da koo muy weeru stage stage boo xam ne buñ ci jógee dañoo war a gën a dàngi suñu tànk gën a dàngi suñu xol gën a dàngi suñu loxo gën a dàngi suñu lépp ndaxte weer la woo xam ne xéewal yi dafa bari weer woo xam ne bu accéléré yàlla dafay jël ay malaaka wàccee leen am ci ñaar ñoo xam ni seen liggéey ba weer wi jeex kenn ki day wax ni yow mi am yiw na dikk mm-hmm. keneen ki di wax ne yow mi am musiba day talal mm-hmm. mu dikk e weer woo xam ne buntu àjjana dañ koy ubbi ngafal ko ngàpp weer woo xam ne buntu sawara dañ koy tëj weer woo mm-hmm. xam ne dañuy jëng seytaane weer woo xam ne jullit nii yàlla daf leen di xëy ci ñuy joxante. joxante ay cadeau. Mhm. ba ci suñu mbokk yi nga xam ne dañuy yéene seen mbokk jullit yoo xam ne léeg-léeg dañ leen di jox ndog. Mhm. nga xam ni bu nit dogee ci sa ndogu. Mhm. yow da ngay am tuyaaba ñu toll ne ji mu am. nga xam ne dem na ba ci sax suñu xale yi nga xam ne dañuy nekk ci mbedd bi di tàngal seen. ci même ñooñu. am na ñoo xam ne jàpp nañ ne li ñuy def baaxul mais li baax la parce que moo gën ñu def ko fen mm-hmm. su ko defee kon weer ni ñu woo xam ne wax dëgg yàlla weeru barke la mm-hmm. wax dëgg yàlla weer la woo xam ne jullit ñi dañ ci dañ ci yërëmante mm-hmm. jullit ñi dañ ci yëgante jullit ñi dañ ci dañ ciy fier ndaxte weer la woo xam ne weer wu tedd la weer la woo xam ne bu agsee dana am bunt yoo xam ne ci àjjana dañ koy ubbi am na dëkk bu ñuy wax rayyaan ñi woor toll ñoo ci tàbbi hmm. mm-hmm. ñi dul woor duñ ca tàbbi mm-hmm. léegi nag loolu bu fekkee ne aw weer ñëw mu mel noonu mm-hmm. rikk waaye kenn ku nekk ci noonu su demee bay tàggu weer bi nga xam ni weer a ngi nii muy tàggu woo xam ni weer wu ñuy jéggale ay bàkkaar weer wu ñuy fulandi ay tuyaaba waaye weer la woo xam ni itam ci la alxuraanul karim wàcc ci la laylatul xadri nekk ci la intikaaf nekk mm-hmm. ci la jaamu yàlla yu bare bare bari ci la nekk mm-hmm. même fukki guddi ci la nekk mm-hmm. nga xam ne fii mu nekk nii mën na noo garanti ni sunu borom mi ngi dem ak ñun mën na noo garanti ni malaaka yi ñu ngi dem ak ñun mën nañoo garanti ni yërmande mi ngi wàcc ci ñun jamono bu nekk kon weer la moo xam ne ku koy dund war nga ko dund ak fierté war nga ko dund ak mbégte war nga ko dund ak mbaax jamono bu ñuy tàggu itam bu mënu tàggu rek ñu ne ah dañuy dellu ca la nekkoon mm, déedéet mm, mm. nan na ne benn oto boo xam ne dañ ko dugal entretien mm-hmm. defaraat organes yi ba mu baax mm-hmm. defaraat moteur bi ba mu baax mm-hmm. defaraat yëpp ba mu baax ba nga xam ne day gën a mën a daw kon suñu stage bi gàllawal ñu ci jógee ñi daan dem jàkk ci biir koor bi nañ ko yokk ñi daan seeti ay ñu feebar nañ ko yokk ñu tabe woon nañ ko yokk mhm. ñu doon jàppale seen mbokk nañ ko yokk mhm. comme euh, mbir mi dañ koy joxante benn euh, débat la boo xamante ni bi mhm. plateau la boo xamante ni yàlla dafa dogal kenn ku nekk war cee am loo ci joxe loolu tax damay taxaw di foofu rek insha allah dëgg la xam la kàddu ba ci di la gërëm bu baax tonton Ngaari comme ni ko comme ko imaam waxee léegi weer bi dafa nekk weer boo xam ne weeru jékkal la mais dañoo gis ni dafa am ñoo xam ne su weeru koo dikkee ñu baal ma ci kàddu gi xaw ma ñàkk jom. Hmm. xaw la moo leen dal daal parce que hmm. am na ñoo xam du nangoo woor. Hmm. juste dañuy déclaré ne man dama feebar te amaana dara dalu leen. googu woor googu noonu la ñuy bañ li nga xam ne suñ borom moom la digle. moom la ñuy bañ teewul ñoom da ngay continuer def la leen neex loo xam ne suñu borom santu leen ko. waaw ñu ngi jaajëfal euh, oustaz Cheikh ci <clears throat> kàddu yu rafet yooyu mu génn tamit kàddu dëgg. koor euh, dafa am solo dafa am solo su bari sax. Euh, am na solo ci nga dëgmal sa borom parce que moo ko sañoo santaane. Mm-hmm. am solo ci sa wér-gu-yaram. daf am ñoo xam nag koor moom café wuñu ko maanaam bokkul ci seen seen emploi de temps. Mm-hmm. Euh, dafa doon nag nit ñu sàggan ñoo xam ni euh, rëccu baa nga ca xam nga dañuy gis kilifa goo xam ni wóorut. dëgg la. ci moom. Mm-hmm. bu mu ndogu jotee ay doomam ñooy ndogu. danañ ko may café mu naan dañ ko may yëpp waaye dana am gàcceeg biir nag. xam gàcceeg biir parce que Taïf la boo xam ni. xëy na dara jotu ko. mais bañ koo def. ndax day dégg sax ñu bari ci waaraate yi boo mënee leel mais leeleem sax defuñu ko foofu. leeluñu kenn nangu ñoo woor. xëy na am na ci woo xam ni. su dee wér di la mën nañ si la koo nangul. waaye bu dee Taïf la moom ci kilifa. mu kàllaf wax dëgg yàlla du warif. Eh, bi ci des mooy oustaz wax na ko léegi eh, xale yi ne ci mbedd yi. di joxe kafe mhm. senegal gépp la wër gis nga man léeg bu ma koy seetaan sama yaram day daw mhm. Mhm. Euh, weer lëm lañu ñu bàyyi lépp bu ngoonee ñu ngi jox am ñoo xam ne amuñu kafe xam nga kii wax baaxul dafa léppam daa mat xam sa lépp matadi sa biir kër su kenn def loolu mën nga boo sàgganee baa ba sa xam-xam matadi koy def ko da yaakaar ko ku doyee di la mais am na ñoo xam ni man dama koy gis seen cafetière chaque jour ci foofa lay dem ñu tëb tànqal kafe café chaque jour xale yi dem jël mburu parce que amuñu ko foofu lañ ko yaakaare gis wax bi ñuy liggéey guddee wàcc euh, sori nañu. gars yi gàttandu leen ak mburu ñu xéewlu mais loolu taw feex googu ku leen ñaanalu bàyyi la ñu dem. parce que lañ lay wax ne ñun li ñuy li li ñuy ket defuñu ko suñu poche mais dafa am jëmm yoo xam ni seen doogu matewu ko kon ñooñu la ñuy far di jàppale te it muy muy lu wér-wér. bari ñoo xam ne ci koor dañ ci jaamu yàlla ci loolu. donc ñooñu dañ leen di gën a encouragé nit ñi bàyyi leen xel parce que euh, jamono matewul. doole tolloowul. yow lu xéewal li ngay am pour pour ndog ndog lu baax am na koo xam ni xalaatu ko. Mhm. léeg-léeg nga seetaan télévision koo xam ne dafa ñaari fan yi naanuma aw ma tonton Ngaye ni nga koy waxee noonu la mhm. amee da ngay gis koo xam ne day dëkk koo xam ne mu leer na la kii nga dëkkal nii du ndogu mhm. yow yaa ngay togg loo xam ne soo paree danga koy tuur kooku yàq da da sax mën a tur waaye dañuy lekk ba des ba mun tuñ ca dara. Mhm. ñu doog la koo jox. loolu du ndimbal loolu xaste la. Mhm. nit boo ko bëggee dimbali. Mhm. ca tàng tàng ba lu baax la nga tibb. ca nga koy tibbal. dëgg parce que yàlla mi la jox doole moo ko xañ doole. bu ko neexoon jox ko doole xañ la ko yow. mais yàlla daf laa nattu la ci ñun. kon dëkkandoo bi nga dëkkal war ngaa xam ba tey ba xam tey ji am na ndogo wala amut. su fekkee leer na amul la ngay ndogu xaaj ko jox ko ca. parce que yàlla nga lebal te yàlla yàlla ñu wul bor dafa am pay. mais euh, teg nañ ceeb bi lekk nañu caxat caxat ku mu ci dara ñu doog koo yanu dégg nga jox ko sax gone gu yaradiku moo ko yóbbu bu ñëwee teg ci digg kër ga am na koo xam ni su même bu ko mag bëggut lekk gone yi bëgg nañ ko. parce que ñoom mosuñu dara ci bëccëg léegi. kon loolu daf ci am solo loo xam nit ñi nañ ci bàyyi xel. gis nga sànq bi damay wax ni Sénégal. bu nu téeméeri président jiitu ci nii bu ñu ko soppikuwul du jëg ci problème. cest yàlla daf ñoo mere. ah waaw yàlla daf ñoo mere de. dëgg la. gis nga daaw taw na ndox bu bari meññeent bu tuuti lool. Mhm. parce que yàlla jur gi la xont bàyyi nu xool lim taw daaw. ñu mhm. la gerte amul kon am na lu xew. ñu dem ba jaakaar dugub jeeg ñebe yàlla yebal ay gunóor ñu lekk ko. Mhm. ñu des ci lu biir nun parce que dañoo yëkkati yàlla chaise bi mu tegoon ni ko toogal ne ci buntu bi yow yàlla. jël nit teg ci place yàlla. pour muy diriger ka dogal. loolu du sotti. ko ana ana moo waral lu tax ana lan moo waral nga wax ni yàlla dañoo mere. mooy jëf ji muy jëf la rafetul su ma dëkkee ak Awa Diop te mat le man leera man koor dafa metti parce que yàlla ñu jox misaal ci koor xiif dafa metti mar dafa metti mais ki nga xam ne leer na ko amut mais moom santaane sans borom bi tax na muy jéem mi ngi def kam lay gàttal yow yàlla ko defal la koom yow leer na lii nga yor ni mën nga ci def téeméeri ndogu du jeex mhm. waaye coof ca lu mat ndogoom woo ko ba mu ñëw sax nga ne ko jëlal lii yóbbu ci kër ga su jeexee nga teel ma koo wax su ko defee moom day am ubbiku day am ay yaatu ndagam ki ki ki amut moo bëgg a sësu pour wor asumaak boo ko poussé nag loo xam ne jàpp na ca. Mm-hmm. kon ndimbal gi mooy danoo dimbalee suñu tuuti biir. Mm-hmm. da ngay dem ba mënutoo ci li ngay lekk dara nga doog ko joxe loolu du ndimbal. waaw loolu lépp nag war nañ ci jublu parce que merum yàlla xajul ci jàmm. Mm-hmm. mais Sénégal ak fi mu toll wax naa ko ay da gis ko yor 2 millions bu doon ko sol lu rafet bu noppi rafle naan ndox mu bari bu noppi mar. dëkk di mer xoolal Sénégal léegi kooku mu mer xol nag bu fa yàlla toxoo seytaane ci bóof xol yu bëri saytaane yàlla yàlla gën na ci. Mhm. parce que nag ndimbal def caa war a di wax loxol borom sax waaye ke sabab lu woor kay bëgg na ko dimbali. nañu jàppale jaam ñi parce que lu dafa am solo. awa daal loo ci gis mooy. Mhm. Euh, war nañoo góorgóorlu koor metti na. mais mais neex na. Mhm. koor dafa neex. jullit ñëppay daje. jullit ñëppay waxtaanandoo xool jàkka yi fees dal nit ñi julleendoo saafo war nga fa neex. tase ci jokka ji naa filandoo fajar gi gars yi ñëw avant ñu ñu salaatu nit ñi dafa neex loolu. Mhm. ñëpp di di di di branché loolu yàlla ñu ci yàlla dimbali. Mhm. mais nañ soppi jikko yi teg ko ci jikko yàlla nu ko sant te ñun daan joxe rendez-vous barzak. kenn du mucc aw dara am ruq booy dugg. barzak boo woon <laughs> comme ni comme ni ko waxee léegi nee na <coughs> nekk weer woo xam ne dañuy ñi ngi demlante ñi ngi dikkalante ñi ngi jàppalante. te nee naa su weeru nee na su bi jàllee nañ ci continuer est-ce que yaakaar nga ni maanaam su weer bi koor koor gi jàllee nit ñi danañ ci continuer lu baax loolu nga xam ni ko doon def. waaw comme ni ko Oustaz waxee rek weeru koor moom bu jàllee am na ñoo xam ne danañ ko continuer. Hmm. ci yar ci xaaruñu koor bi. Hmm. Hmm. ki yar sa doom ci yar boo xam ne bu julli jotee mu julli bu woor jotee mu woor. comme ni ko ngaari waxee boo màggee na mën a woor. mais tamit kilifa yi dañ ci am part de responsabilité. ci xale yi côté boobu. ndax da ngay woor rek fàtte say doom. doo leen te xale da nga koy teel a jàngal. Mm-hmm. man ni ma gisee ñun ni ñu yare mm-hmm. ñun xaaruñu koor bu julli jotee daal dinañ julli. bu mm-hmm. koor jotee tamit dañuy woor bu ñu waree. dañuy mel na ñun koor gi taxul woon ñuy julli. koor tax ngay julli tamit boo waree tamit da ngay. da koy bàyyi koor gee la ko yóbbu loon mission la boo doon dox. pour yow weeru koor ci nga am pour jaamu yàlla. mais weeru koor bi day jàll yow da ngaa war a ful sa jaamu yàlla gën koo feddali gën koo dëgëral. loolu yëpp day joué ci. ci mbindaafon bi nga xam ne dafa taxawal. Hmm. que ne moom xaaruma weeru koor bi rek. ndax tey bu kii xaaree weeru koor bu weeru koor yu jeexee day toog benn place. Hmm. loolu nag dañuy ñaan ñun ñu mucc ci loolu rek. Hmm. dañuy ñaax gone yi ci ñu gën a continuer que ne koor gi koor la day àgg. tabaski jotee tabaski la day àgg mais koor gi taxul ngay jaamu yàlla daal. bu ko bàyyi xel rek bu koor ji jeexee da war a continuer wala sa jaamu yàlla. dëgg la joxal micro bi daal. maa ngi lay nuyu. ah soxna si ñu ngi lay delloo si bu baax a mm-hmm. baax. Mm-hmm. ba yaa ngi am jàmm. waaw ah, ñu ngi sant bu baax a baax. ñu bàyyi la nga nuyoo téléspectateur yi nga xam ne ñu toog di la seetaan. dégg ñu bàyyi la nga nuyoo. waaw ah, asalaamaaleykum. waaleykum salaam. mbokki jullit yi. Mm-hmm. ak mbokki àdduna bi yëpp. ñu ngi leen di ziar bu baax. di leen joxat seen wàccuwaay te it di ci jiital. sunu xalifa général kullu murid Serigne Mountakha. Mhm. Mbacké xalifa général ak suñu bunt ci Serigne Touba muy maam Cheikh Ibrahima Fall. Mhm. di jox àdduna bi yëpp seen wàccuwaay. Mhm. di ak te di baal ñëpp ak ci weeru tedd wi di ñaan suñu borom bii borom biir moom di borom lépp. def ci réew mi taw fii xaar tey seer. di la gërëm bu baax a baax a baax Imaam ma jëlawaat la kàddu gi mu gis ni ni. mburum koor mm-hmm. comme ni ko tonton Ngaar di waxee dafa am lu ci xaw a laxasu mm-hmm. mu doy waar loolu ci réew mi est-ce que mën nga ñoo reeral tuuti ci mburum koor euh, jërëjëf euh, soxna Awa bala maa dem ci mburum mm-hmm. tuuti rek fii sa sëñ Ngaar yi dafa am benn ci borom xam-xamul islam yi mag yi ci Abdullah ibn Mubarak daf daan dafa dem Màkka benn yoon bëgg a ñaareelaat dem Màkka bi mu dajalee paasam ak yëpp ba pare doon génn këram gis benn jigéen bu doon tay dañuy wax buy buuju nekk ca ma di ko wax ay mm-hmm. mu daal ne Abdoulaye ñu ne nii de demoon màkk daaw ren du dem ñu ne ko lu tax mu ni ren moom la ma naroon a passé ko yóbbu mm-hmm. dama koy jox soxna si mu bokk comme neneen bokkam mm-hmm. maanaam loolu benn leçon la bu mag boo xamante ni daf ko joxe ci solidarité joxe ko ci amal xayri yu bienfaisance yooyu ay leçon la yoo xam ne ñu war a jël la hmm. bu fekkente ne nag damaa ñëw ci sa question bi mooy mburum hmm. koor hmm. mburum koor dañuy njëkk wax ne lan mooy illa ji lan moo tax ñu di ko joxe ki nga xam ne yàlla dafa dogal bis bu nekk mu yalwaani wala mu xëy ñaani wala mu xëy jamono bu nekk lu waaye am ci la nekk walla sax nekkul ci lu waaye am waaye bu xëyul marché du lekk kooku nag dañ ko war a jox loo xamante ne da koy tax a toog jullit ñi dañuy feetu moom tam daa war a feetu kon bokki jullitam ñoo ko war a jox lu mu war a feetu mm-hmm. léegi nag muurum koor moomu e, yonent bi daf koo fonk bay wax ni weeru koor daal dafay nit ki bu waree kooram day aju ñu mm-hmm. wàcc lu dul dafa joxe muurum koor mm-hmm. mais nag foofu aussi sew sewa ngi fi mooy am na koo xam ne mënta joxe muurum koor da ko yurul kooku moom da koy wàcc. Mm-hmm. am na koo xam ne ma ngi koy joxe weer dañ ko ko war a jox. Mm-hmm. loolu bari na ci société bi. Mm-hmm. am na koo xam ni mën na koo am dimb ak bërki démb suba du ko am. kooku itam wàcc na. mais ki ko am da ko war a joxe. ñan la koy joxeel ñi mu jaboote ñëpp. ay doomam ay surgaam ak ñi nga xamante ne ñoom la yar ñoom la koy joxeel. bu mu koy joxee ñaata lay joxe. mooy na joxe bopp bu nekk gën gaaw bu fekkee dugub la mhm. wala ceeb la parce que l'islam dafa ne bu koy joxe na ko joxe ci la ëpp ci la ñuy dundee mhm. xeet wu nekk la ëpp ci la ñuy nañ ko fa joxe am na ñoo xamante ni am ñax lañuy ñuy dunde am na ñoo xam ne ceeba dugub lañuy ñuy dunde comme ñun mhm. su boobaa ah, jullit bi am na droit joxe ko ci ceeb ceeb na bu ko ciy joxe la ca gën a néew mooy un kilo huit cent. Hmm. wala benn kilo ak liibar ak genn wàll liibar la ca gën a kawe mooy ñaari kilo maanaam bopp bu nekk. bopp bu nekk am na ñuy wax ñaari kilo ak liibar waaye weddiwuma seen wax mais xaw ma fuñ ko teg. Hmm. dëgg la mais ñaari kilo daal ku ko joxe ci bopp bu nekk arrondir ko. joxe nga li nga war a joxe. Hmm. kañ nga koy joxe buñ ne weer wi feeñ na tey fi tàmbali ci guddi gi ba keroog ñuy dem jullikaay. dëgg la diggante boobu nga am na ñoo xamante ne sax ngir yoo xam ne gën nañoo avancé mooy ñoom dañ ne vingt huit ba boo boo ne tey la vingt huit rek. Mhm. entre vingt huit vingt neuf ba trente mën nga koo joxee ci diggante boobu. mais ngir mi nga xam ne moom la yàlla dogal ak Sénégal di ko di ko di ko topp te mooy ngir imam Malik ñi ëpp ci ñoom di ko topp am na ñu ko toppul nag am na ñoo xam ne nee nañ boroom xam-xamul islam moom. boo xam ne yëf yi leer na ci moom am na droit jël ci kaw directement. Mm. mais ngir mi nga xamante moom la ñuy topp bu weer wi feeñee ba ba ñuy dem ci jàkka ji te ci diggante boobu lañ koy joxe. Mm. léegi nag ci biir ngir imam Malik am na ñuy wax ci ñoom ne mën ñoo tollale loolu alal joxe ko. Mm. ci xaalis comme tey bu ma doon joxe exemple damay wax ni bopp bu nekk huit cent franc wala bopp bu nekk sept cent cinquante franc ku ko joxe joxe nga lu tolloog. ñaa lu tollook ceeb ba. wala lu tollook dugub jë ci xaalis. comme comme comme comme ni ñuy joxe li lekk tamit am nañ droit noonu jëlee xaalis di ko joxe. Mm-hmm. Uh-huh. comme ni ñuy joxe li nga xam ne moom moo di ceeb moom moo di uh, dugub am nañ droit tamit jël noonu xaalis joxe ko comme noonu. très bien foofu la foofu lay waxee maanaam am nañ droit jël lu toll noonu ci xaalis joxe ko. Mm-hmm. moo tax boo gisee may wax huit cent franc mooy ne huit cent franc ci ceeb bu. bu digg doomu. Mm. wala dugub ju digg doomu man nga cee joxe par bopp. Mm. su ko defee boo nee moore fi nekk ak galaay ak mati ñoom ñett ku ci nekk nga joxel ko benn huit cent franc. Mm. boole ko jox ko kenn. ci exemple. léegi su ko defee na nga fexe daal bala nga ko bala bala ñu war dem jàkk nga joxe ko. Mm-hmm. léegi itam nit am na droit génnee ko fekk du àgg. li ma jublu ci loolu mooy tey bu fekkonte ni imaam nga koy jox pour mu joxe ko. da koy génne bala ngaa julli ji léegi nag bu neexee imaam man na ko denc ba julli ji ba ñëw hmm. mais illa bi daal mooy kiñ koy jox dañoo bëgg mu toog ci këram feetu comme ñëpp hmm. eh, dem naa ci am réew moo xamante ne ndeysaan ñoom àgg nañ avancé nañ ba àgg ci te pourtant de jullit ñu bari wuñ fi hmm. bërëb la avancé nañ ba àgg ci eh, jàkka ji sëriñ bii lay ñëw paase mel ni bu bëgg sëriñ bi ñëw passé benn blouson indi yow nga ñëw passé sa benn robe indi ñu ñu dajale ko foofu nga xam ne am na ñoo xam ne suba dañuy xëy toilette comme seen bopp ji mm-hmm. am ñoo xam ne àgg nañ ci li ñu war a joxe dañuy ñëw bu maanaam bu tey bu tey dee àjjuma mm-hmm. suba nekk korité dañuy ñëw sëriñ day ñëw indaale kii ñëw indaale kii ñëw indaale bu ko defee am na kuy wër koo xam ne moom day topp bi bu ñëw ci sëriñ mu jox ko mu ñëw ci kii mu jox ko mu ñëw bu dem ci keneen mu banque loxo bu tourné di joxe ñeneen ñi tàll lu ñi bankoon seen loxo ñooy tàll seen loxo parce que ñoom <coughs> ñooy ooy aaju su ko defee affaire bi dañ koy joxe directement te duñ ko yëg mm-hmm. yooyu itam ay technique la yoo xamante ne am na jullit ñu àgg foofu mais li mu bëgg wax daal mooy mbuurum koor moom lu am a am solo la lu fondamental ci lislaam léegi nag su ko defee suñ ko joxee ba pare ne kiñ koy joxe moom dañ ko koy jox pour mu toog ci këram bànneexu hmm. léegi nag bokk na ci hmm. teggin yi nga xamante ni eh, maa ngi jéggalu hmm. maa ngi xaw a guddal bokk na ci teggin yi julli ji kii julli ji muy wax allahu akbar allahu akbar def ay takbirat walilahi alhamdu ki bokk na ci aussi teggin yi mu sol yére yu set gëttu gëttu mooy lan. gëttu bañ ko la ñu. Mm. wut parfum. bokk na ci teggin yi aussi bu jaaree yoon bi buy ñëw mu jaar beneen yoon. Mm-hmm. bokk na ci teggin nii aussi joxante ay cadeau ci biir jullit ñi. Mm. ak yeneen yoo xamante ni tudd ma ko yoo xam ne ci teggin nii la bokk. bokk na ci teggin yi aussi eh, sa jullit bi nga xam ne yàlla dafa dogal foog nga ne amal nga ko àq nga ne ko baal ma àq. dëgg la soo ko yox baal ma àq nag na nga yéene lépp loo ko mas a def. loo yëg ak loo yëgul moom itam su la wax baal ma ak baal naa la ak na yéene lépp loo xamante ne mas na def nga ko ko lu mu yëg ak lu mu yëgul su ko defee euh, koor dafa nekk loo xamante ne lu am importance la mm-hmm. waaye muurum ci biir koor aussi dafa nekk loo xamante ne lu am importance mm-hmm. danaa insister waat bala maa daaneel wax ni ñi koy joxe ci la nga xamante ni moom lañ ëpp ci lu ñuy dunde mhm. ca gox ba ay nit mën nañoo dunde waa senegal mën nañuy dunde dugub ak ceeb fekk waa Mauritanie <coughs> lors ak blé ak mboq la dund mhm. fekk waa Mali ñoom tàndarma ak leneen la ñuy su ko defee mhm. kenn ku nekk ci eh, ñoom da koy joxe ca la nga xamante ni moo ëpp la ñuy la léegi nag boo gisee kilo yooyu ñu wax ko dañ daan natt ay pot ak ay baxtu hmm. démb ak bërki démb hmm. léegi pot yooyu ak baxtu yooyu nag lañ ca daan natt par par bopp boo ko boolee lu ci gën a bari un kilo huit cent lay doon hmm. comme un kilo huit cent nekk na loo xam ne naqaree natt la ñu ne nañ ko arrondir def ko deux kilos deux kilos moomu itam mën nañu ko joxe joxin woo xamante ni xaalis lay doon mu nekk bopp bu nekk njëgu nàngam su ko defee ñu joxe ko ca la dollar ba tollool hmm. wala la CFA ba tollool ca jamono boobu hmm. loolu daal mooy li xamante ne mooy tënk bi ñuy joxe incha allah bu fekkente ne xaj na fi buñ dellu si danañu renforcer waat incha allah. et di la gërëm bu baax a baax ci leeral yooyu nga xam ne leeral nga ci mbirum koor tonton Ngaye. Hmm. nga dégg ni ko imaam waxee ne ngir soo joxee da nga joxe la nga xam ne moom ngay lekk. mais parfois damay gis koo xam ne da koy jox mbirum koor mais amaana ceeb ba bari tànn nga muy bari tànn. ceeb ba dana salte ceeb ba dana bari tànn. nga yëkkati ko àttan koo jox nit koo xam ne moom da koy da koo yooyoo loolu est mburum koor la wala xeeb nit wala toroxal nit. Euh, imaam ñëw na ci mburum koor moom bu mu leer nañ. Mm-hmm. ndax la ngay war a lekk ngay joxe. te bu amee xeer moom ak loo xam yow leer ni doo ko sóor di ko lekk waroo ko jox nit. Mm-hmm. parce que du du du sarax. boo xam da ngay bëggoo ko say xar sax bëgguñu nga di ko jox nit moom. rafetul te sax imaam ñu ngi koy waxtaan sànq avant ñuy démarrer euh, fii jamono toll. ki nga xam ni aajowoo na ko mooy koo xam ni kore gi amagu ci xéwal. kooku boo yëkkatee xaalis bu tolloon jox ko ci charge dana mën a wuti pomme de terre mbaa mu wuti. ku jaay yàpp dara mën caa jënd. moom it def soos comme ñëpp. Mm-hmm. boo ko joxee ceeb pour mu jaay ko problème bisu korité fu muy mm-hmm. jaayee ceeb. Mm-hmm. ak ku mu koy jaay kenn du ko jënd. kon xaalis boo ko dajale jox ko nit ki eh, jox ko ko ci sutura. jox ko ko ci ak dal. Eh, jox ko ci ci santaale san borom la dafa gën fuuf. kon euh, oustaz daal indi na indi na indi na leeral gi yëpp. donc am na ñoo xam ne nag wàcc na leen parce que amuñu ko. te defe naa ne oustaz dina ci ñëwaat. Mhm. ki amul murum ko lebi di ko joxe moom yaakaar naa gënul ko yaakaar lebi pour joxe. Mhm. gënul parce que kii lépp moom amoo. Mhm. loolu nag tonton Ngaye ci suukaru koor lañ ko gën gis ñoo xam dañuy leb dem bi joxe ji. Ah, si ñëwaat ak imaam beeg waaw dina ñëw suukaru koor moom dafa toj Sénégal. suukaru koor moom daanaka kenn xoromu koor sax la faf. parce que suukaru bu xool dem ba tas sëy dem ba nit gedd dem di këram dem ñibbi seen këram suukaru koor jaratu ko mm-hmm. mais daal li wóor boor fi mu toll euh, wax na ko ci murum koor mm-hmm. dafa dafa dafa dafa war a nekk ñu di ko def il faut ñu jàngat ko mm-hmm. ñi nga xam aussi ñu indi xam-xam pour ëppale loolu ñi ngi lor parfois nañ ko yemale fi ko yàlla yemale bu ko defee euh, kenn du loru ki ko war a joti jot ko à temps mën a préparer moom boppam julli jikkoom ñëpp mais oustaz wax na am solo li nga xam ne mi ngi xew France mi ngi xew feneen loolu moom euh, mbéye boo ñoom oustaz yi ñu gën koo jël jàngale ba ndaw ñu roy loolu mhm. parce que rek biir jàkk ñi lem yëri ndaale ku ne lem dara indaale ki ko soxla ki nga xam ne aajo woon na ko dafa banque loxoom mhm. kon moom mooy soxla naa après moom it ñu wàññi ko jox ko bu ñibbi yor mbuusam loolu moom c'est à revoir mhm. euh, lu extraordinaire noonu donc loolu parce que Sénégal jéem dugg ci domaine boobu. mais daal muurum koor warif la ci ku ko am. ku ko amul wàcc na la parce que ki war a jël moom mënut a joxe. dëgg la nañ ci gën a góor góor lu baax am na solo daal. am ñu wax am na solo bu baax a baax sëriñ ñu daal di ñëw ci yow sëriñ nu dundee ñaw yi. waaw côté boobu nag moom boo ci laajee <laughs> dana gën a ñëw dana gën a wàcce wàccaay tuuti ndax xam naa genre gaari gi ñoom ñu bañ a wari suba ndax nee na am na yu des <laughs> te ñun ñii danañu gënal ndax xam na ñoo xam ne jël seegul te pareegul waaw ah. fii waaye te ñëw yi moom dañ ciy gën a gis ne ren moom xaw naa taxawee benn benn boor daal mm. bu tiis yi doxlewul téer yi mën nañu taxaw bu mm-hmm. mercerie yi doxlewul teyr yi dañuy taxaw mm-hmm. léegi nag ñun ndox doxlee ñun dañuy yóbbaale ñëpp mm-hmm. mais leen gis ci korité gi tamit jamono mel noonu presque xale yi ñoo ëpp lu ñuy def mm-hmm. ak suñuy moroomu góor xamante ne si léegi moom xaaratul dara chaque jour ñu ngi kiy sol te mode bi développé na développement boo xam ne bëreetul yére tubaab yi bëreetul presque koo gis mi ngi sol yéreem bu yiw dem te loolu aussi tamit teyr yi ñu ngi gën a jóg xale yi génn école ñëpp ñu ngi dem di jàngi teyr kon tailleur bi mi ngi gën a màgg mhm. te ñaw yi mi ngi gën a évoluer matériel yi aussi mi ngi gën a yomb mhm. li ci des kay mooy ñaan koom-koom bëri rek bu ko defee ñaw yi gën a saawaan ñëpp gën cee gis seen bopp dëgg la comme ni ah, ah, ma ma ma laaj sëriñ boo pare ma li ma ko laaj sëriñ sëriñ euh, dafa am loo xam ni fi ngeen tool ci jamono mhm. waaw boog fi ñu toll ci jamono ñu gis ndaw ñu bari dérapé dañoo dérapé euh, loo xam ni war ngeen ko indi yaa daam yëpp dañ leen ko parce que exemple ngeen ci Louga gis nañ loolu. quoi qu'on puisse yaa ngi ci mbiru styliste ak tailleur. daam mi ngi ci Zikroullah. Mhm. Euh, mais sëriñ dañuy gis ba maanaam ngeen simple benn simple boo xam jaaxal nañu parce que gis nañoo xam ni bu ñu xawee euh, ñu xam leen tuuti rek ñu def star boo xam ni. Euh, lu bari day jafe ci ñoom mais dañu gis toujours ngeen benn simplicité bu nekk ci yéen. Mhm. benn woyof benn nangoo liggéey. te ndaw ñu bari dañuy wax nii état daf ma état laay xaar te yéen gisuñu ngeen xaar état seen taxawaay tey ci loolu sëriñ yar bi la diine ji la lan nga nu mën a expliquer loo xam ni ndaw leeseraat ëllëg après moom dana ni ah man naa def sëriñ mi idol wala naa def daam gay mi idol pour mën a wéyale sama àdduna parce que ñu bari fi mu ne dañoo déraper. kenn xamatul fu ñu jëm ñoom xamatuñ fu ñu jëm ñoom. Mhm. te mënut ñoo wàññiku ñi ngi ci ci ci ngiñ joo xam ne jar na aussi ñu ñu fëgg seen bunt pour ñu wàññikuwaat loolu mën a wax foofu. waaw loolu ngaar yi dañ ciy sawar. bu mhm. oyof moom dañ ko taamu ci nit ki. taamu ko ci comme waajur yi rek. ñoom gën a yar seen doom ci nàndal ko ci oyof. Mhm. oyof moom wax dëgg yàlla loolu la sëñ bi bëgg. loolu la yàlla digle. te boo ko jàngee rek da ngay oyof te rëy moom jigul kenn. moom wax dëgg yàlla. loo gisee géej li muy dem dem da nga gis gaal bu nekk ci peyam te oyof moom fa bàyyi. bu wàccoon rek day diig. day diig bu rëyee rek day dem. Mm-hmm. oyof moom doon ko séentu fu ne mais nit lañ ko gën a séentoo. Mm-hmm. ci nga toll fi nga war a toll comme ni nga koy waxee ñun mën nañu wax ne comme daam bi dama koy nuyu. au mm-hmm. passage maa ngi koy seetaan maa ngi koy déglu. te tamit am na ñu topp ci gannaaw ñu muy defar. ñun ñi tey ñuy defar école bi day të ñu tëj a kër ga ñu doog ñu koy indi. ñu defar leen ba. man leen a yor. Hmm. ndax ma bàyyi nii groupe ma nga fa di liggéey. Hmm. te am na lu ñu def ci ñoom ba nga xam ne mën nañoo toog fii ëllëg mën nañu demal seen bopp. Hmm. te dañuy def si loo xamante ne yëg-yëg lay doon. xam nga moom. yëg-yëg moo am. Hmm. boo yëgee ñëpp rek ñëpp yëg la hmm. boo yëgul kenn kenn du la yëg parce que fii kenn nekk fi star hmm. star yow yaa def sa bopp waaye star bi mooy liggéeyal sa liggéey gëm sa bopp gëm na yow li nga war a def sa loxo bi moo koy liggéey xaaruma daam xaaruma ngaari xaaruma sag léegi loolu dèjà moom la ne bu moom la ne yëg-yëg yëg-yëg la nit ñi da am xale yi aussi loolu lañ bëgg ñu am ko mhm. star bi du question da toog ñu def la ko mhm. nga nekk footballeur nekk star mhm. nga nekk benn téer loo nekk war nga ci nekk star ku nekk ku gëm sa bopp rek gëm na yow war nga nekk star man na nekk ay ndaw bu neexee tukki mais tukki boobu yow li nga toog sa dëkk tekki sa dëkk man defe naa ne moom moo gën nga génn bitim réew def loo xamante ne si yaa ngi daw dugg si gaal yi di dem tey yaa ngi ne état deful yaa ngi ne man bëgg naa lu kii amul ndax yow bëgg nga ko am. Hmm. da dem nga liggéey ba pare. dëgg la mais croiser les bras hmm. président def dara wala benn maire def dara. Hmm. wala kenn ñun dañu nekk ci Louga di liggéey. politique luñu benn maire. xaaruñu kenn. te fi ñu toogee nii li ñuy développé ci Louga am na ñoo xam ne développé wuñu. dëgg la parce que da gis même politique bi benn nit. cent personnes topp ci gannaaw. Mm-hmm. pourtant ñoom ñëpp na dañuy xool. lu mm-hmm. ñu amee ci kenn dara. dëgg la léegi kooku li muy amee ci kenn kooku li ngay am ci moom. Mm-hmm. danga ko am demee moom moo lay yilif. man pour ma ñëw rajo il faut ma tàgg kooku. ma demee ci moom lay nekk. mais il fallait tamit nga gëmal sa bopp na yow da war a ñëw waxal public bi. taxawal Louga. wane sa gëm-gëm. wane na yow tamit mënoo dara. mënul parce que tey bu sa bëñ doon métti doo toog fii di wax. dëgg la léegi yooyu yëpp da ngay gëm-gëm bi ngay wane daal mooy que nekk xale du tee am jom mm-hmm. nekk mag tamit du tax a bàyyeeku. Mm-hmm. boo defee loolu sa xel rek naa ni sa kanam yëpp mën nga mm-hmm. Imaam comme comme ni ko tonton Ngaye di waxee est-ce que néew lépp nekk nekkul ca yar ba ndax dañoo gis ni léegi yar dafa réer lool lool lool lool moo tax xale yu bëri avancé tun nangu ñoo liggéey comme ko tonton Ngaye di bañ di xaar moom mm-hmm. état buggul ko tudd état. mais parfois tamit da ngay gis ku liggéey <laughs> toog mu la place bi awa toog moom moo fooroon mais awa ko fa teg amaana ñu bari looloo tax ñu ñu ñuy xaw xaw a dingat ak état tuuti. jërëjëf euh, soxna Awa defe naa ni yar boobu nga wax lu am importance. Mhm. Mm-hmm. yar moom dafa bokk ci yi nga xam ne yu fondamental la ci nit. gis nga foo fekk ku ñu yar day wuute lool ak ku ñu yarul. Mm-hmm. te yar aussi dafay gunge nit àdduna di ko gunge nit àlla di gunge nit àlla. Mm-hmm. ki nga xam ne dañ ko yar ci wàllu dal du bokk ak ki ki nga xam ne aussi dañ ko yar eh, am na yoo xam ne du ko séenu gis nga même baralon mi ngay wax dafa bokk ci lu ko influencé mooy ñaar ñàkk yar mhm. ak ki ñàkk yar day gaaw a découragé mhm. ki ñàkk yar aussi day gis boppam ci façon boo xamante ni bii lu ni cot ci danaan man a mhm. lu yëngu rek danaan man maa tax lu yëngu ku ko day gaaw a découragé day gaaw a gis boppam yu bare bare bari da koy gaaw a def moo tax effectivement yar boobu la ama am solo la mm-hmm. même kiñ yar ki yarul ki eh, day jàpp ne kër gi kër gi mu nekk noonu day jàpp ne lu fi lu fi lu lu ñu fi influencé ci influence boo xamante nit bi day indi ak doye bi mm-hmm. ci moom la jëm mm-hmm. pourquoi parce que yar bi nekkul ci moom ñun itam parfois mag ñi dañuy def yoo xamante ni duñ jàpp mooy ki nga xamante ne dafa amagul liggéey. Mhm. wala nga koy encouragé pour mu am liggéey bu ko xas. dëgg la parce que la plupart ñi nga gis ñuy dugg ci gaal gi am na benn influence bu mag boo xamante ni bii boo leen di influence. Mhm. influence boobu bokk na ci min leen di traité ci kër yi. Mhm. sa doomu bàyyi bi am na lii yow da ñàkk jom sa morom am na lii nangam ki nangam te xamuñu ni wërsëg moom. wërsëg la tudd. kii mën na koo am kii ñàkk ko nit mën naa dëkkee liggéey am loo xamante ni lu néew la wala lu yam am koo xamante ni kii yàlla defa def ci moom wërsëg. Mhm. yàlla moo barkeel liggéeyam. Mhm. léegi nag bu fekkee yow ki yàlla barkeel liggéeyam da koo yemale ki yàlla barkeelul liggéeyam da ngay indi problème. Mhm. léegi nag xale yi bokk na ci li nga xamante ni moom moo leen di influencer ñàkk considération ci biir kër gi. loolu moom mag ñi la du xale yi. dëgg la mag ñi yorootul. tante yi. Mhm. ak nangam ak nangam ak mag ñi nga xam ne dañoo yaroo seen sago. dëgg la ñooñu aussi parfois benn influence lañ bu mag a mag ci xale yi. Mhm. mais nag loo ñàkk ñàkk wërsëg loo doyee di doyee nit sax du doyee di yow yaa jàpp ne doyee nga fekk doyee di mhm. na nga jàpp am na loo xamante ni du xalaat loo xamante du xalaat géej gi ni mu mel. nga jàpp ne yow mi war nga cee man a dugg pour dem tekki ji boo ci duggee ba àgg boo àggee bu la yàlla defee nga àgg ndax da am liggéey. dëgg la soo amee liggéey ba pare. ndax da nga ko jariñoo mhm. man damaa jàpp ne xale yi ak a neexoon ñu leen yóbbu ba ñu gis. Mhm. ba ñu yóbbu leen normal ba ñu gis ñu delloo si leen bu ñu leen ko doon def yàlla xam nañ duñ dugg ci. Mhm, parce que dugg ci gaal yi. dëgg la loolu amoon na lu jëkk mhm. mais ay benn benn la woon daanañ wax ne fulaan diw rakibal ba war na géej waaye ñi daan war géej gi démb façon bañ ko daan waree ak tey bokkul bokkul léegi nag su ko defee loolu aussi yar boobu nañ ci bàyyi xel bu baax mhm. dafa am benn xadis boo xam ne am na sax ñu koy jam waaye bu fekkente ne euh, la ñu wax ci wàllu lafz ba maanaam ci wàllu nañ ko waxee bu dëgg itam wax ji dëgg la mm-hmm. ñu ne yonente bi dafa wax ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi mm-hmm. yàllaa ma yar rafetal sama yar même bu fekkente ne wax jooju du nekkul de eh, yar wax ji moom dëgg la même bu fekkente ne rotul wax ji dëgg la mm-hmm. parce que kenn wérantiwul ne yàlla yonente bi yàllaa ko yar moo rafetal ab yar su ko defee kon nañu yokk yar bi bu baax a baax nañuy orienté xale yi mag ñi aussi dafa am mag ñoo xamante ne dañoo am esprit dictateur loolu aussi mm-hmm. day influence ci xale yi mm-hmm. am xale yoo xam ne seen yaay ak seen waajur dañuy seen yaay ak seen wa seen day jote ci seen kanam mm-hmm. loolu itam dana yàq am yoon et am xale boo xamante ne jamono ba muy xale lañ koy tàmbali di ko xam lu naan ko wëyu nga xale kenn du ko kenn du ko gëmloo ni wëyu boo ko gëmloo ni wëyu nga danaan man tekkiwu ma daal xale dañ koy dañ koy dañ dañ koy orienté di ko dimbalee ay xalaat di ko dimbalee comportement yu baax mm-hmm. Mm-hmm. di ko jubbanti di ko teg ci yoon su yàggee day day day ci yoon mm-hmm. su ko defee kon loolu taxuñu woon a jóg waaye dañuy wax ne daal eh, koor weeru koor daal lu am maanaa mais koor yi aussi yi teggin yi ciy def yu am maanaa xale bi xam nga am na benn aada boo xamante ni dañ koy faral di def booba réew mi dafa neexoon li ñuy wax ñaani ndéwénal booba sàcc ay xale amul booba siif ay xale amul hmm. booba agression kenn xamu ko waaye fii mu nekk nii dëgg la xale yi mën nañ leen di bàyyi ñuy ñaani ndéwénal mais ci façon bu restreint hmm. demal kër diw demal sa kër yaay diw demal sa kër bàjjen diw demal sa kër nijaay diw ña wàññiku hmm. parce que adduna bi dafa yàqu loolu itam bokk na ci aada ji nga xam ni aada ju baax la parce que yow yëg-yëg bi ngay am par exemple ma toog <coughs> famille euh, Serigne yëg-yëg bi soxna Khady Diop di am ba jox sama doom dara yëg-yëg boobu lu am importance la mhm. mais nag yëg-yëg bi di am ba jox sama doom dara yëg-yëg importance la mhm. mais nañ ko def lu restreint nañ ko yemale parce que buñ ko yemalewul itam mën naa indi yeneen problème mhm. mën naa indi xale yu réer parce que adduna bi dafa jaxasoo léegi mën naa indi leneen mën naa indi leneen su ko defee yooyu itam ay aada yu baax la mm-hmm. ay aada yu yiw la mais nag na nekk loo xamante ni bañ a ëpp la su ko defee kon nañu góorgóorlu bu baax ci li nga xamante ni mooy suñu aada bi suñu diine am ci loo xamante ni aada ju baax la ju dëppoo ak diine parce que ki nga xam ne nee na la joxanteel ay cadeau kooku ci l'islam kon nee na la xale yi mën nañ leen a jox ay cadeau mm-hmm. mais nag bu ñu leen di jox ay cadeau aussi bu mu ëpp leen bàyyi ci mbedd mu ñuy taxaw waaw ba ba timis ba gee mais nañ leen ne demal fii ñëw demal fii ñëw yamal fii defal nàngam yamal fii su ko defee yamal fii yamal fii jooju sax ci yar bi lay dellu si su ko defee kon benn feete ngi ni suñ mm-hmm. kanam koo xam ne dañuy ñaan yàlla yàlla fekke loo ñu ko ñu ko yàlla fekke loo aussi ñu góorgóorlu ba géré ko mm-hmm. eh, xam naa duma ma daaneel te waxuma ne eh, kilifa yi diine yi imaam yi sëriñ si nañuy gën a organiser wu bu baax. ci wàllu seeni bi mhm. ci wàllu góorgóorlu bu baax a baax ci li yëgante. Mhm. xam nga eh, maa ngi joxe sànq euh, exemple ci Europe xam nga fu mel ne France tey jii boo demee ñoom huit pour cent lañ ak neuf pour cent. Mhm. ñun ñu nekk quatre vingt quinze pour cent. pourtant ñoom organiser wu nañ ba nga xam ni bu weer wi feeñee balaa dix minutes. kilifa yëpp yëpp yëg ko organisé wu nañ ba nga xam ni seen euh, commission croissant lunaire mhm. du bu organisé woo ba pare am na kenn koo xamante ni kii moom mooy imaamu grande mosquée de Paris bu or commission bi organiser woo ba pare moom lay waxal day mujj moom la ñuy déglu ci lépp mhm. loolu nag yàlla mën na dem ban àgg ci ñun waa Sénégal conseil national islamique bu ñuy wax CENI mm-hmm. moom la ko d'Ivoire am moom la yeneen réew am man nañoo dem ba yàlla def ñu am ko mais daal li ñuy yëganti nañuy yëganti waxuma ne nañu di woori suba wala nañu di gannaaw suba mais nañu organiser wu ba yëgante ci benn façon boo xamante ni bii yàlla mën na dem ba ñuy dimbalante mm-hmm. waaye nag balaa boobu kenn ku nekk li ngay def na dal sa xel waaye kenn ku nekk amul yéene ju rafet. Mhm. ki wari tey na jàpp ne ki dafa dafa am yéene ju rafet ki wari suba itam na jàpp ne dafa am yéene ju rafet. Mhm. su ko defee bu ñu demee ba dajeeg borom bi subhanahu wa taala dana xam ne que ñun lii suñu njort la woon suñu wóolante la woon suñu yéene rafet na bu ko defee yàlla jàppale na. est-ce que est-ce que est-ce que. ñàkk organisation boobu noonu moo tax léegi ñaari Korité di am lool ñaari Korité di am fii Sénégal. waaw ñaari korité daana am naka jekk mais nag àggul woon fii àggul woon fii mhm. damay wax ne damay faral di wax ne ñun Sénégal ñetti kuréel la fi ñeenti kuréel la fi nekk. muy ban ak ban koo xam ne lu coow li bari bari moom fu mu déggee weer wi ci àdduna wari. dëgg la loolu am approche la. Mhm. kenn du ko dàq. am koo xam ne sous région bi lay déglu Sénégal Mauritanie Mali nangam nangam nangam nangam nangam mhm. am koo xam ne moom commission bi ci biir réew mi lay déglu. parce que réew buñ ko waxee mooy mooy ay gox yu àndandoo la yu àndandoo wax naa ñetteel bi koo xam ne commission bi ci réew ak koo xam ni lu coow li bari bari bari moom kilifaam lay dégg. Hmm. kilifaam daal su waxee mu ne gongo su waxul du déglu leneen. Hmm. mais ñoom ñëpp nag kenn ku ci nekk. li ngay def l'essentiel na nga ko teg ci xel mu dal na nga ko teg ci aussi euh, njort lu rafet. na nga jàpp ni la imam Shafi'i yi waxoon imam Shafi'i yi dafa joxe règle boo xamante ne xawes na koo mën a bind ci wurus mm-hmm. dafa ni woon ra'yi sawaabun yaxtamilul xata wa ra'yu gayri xatabun yaxtamilul sawaab dafa ne sama gis-gis man Shafi'i yi dëgg la waaye nag lu dul dëgg mën na cee bàyyi ko de mm-hmm. gis-gisu keneen bu ma jàpp ni du dëgg itam naa jàpp ni dëgg mën na cee juddoo su fekkonte ni ñun jullit <coughs> kilifa yi ñu ngi yëgante di doxe noonu yàlla mën na noo def ba dajalewaat ñu boole ñu te noo ngi ñaan yàlla subhanahu wa yàlla defal ñu mm-hmm. am na kilifa gu baax boo xamante ni gii xañ na mbokk la ci sëñ Jóob mm-hmm. bu wax Cheikh Mahmoudou Mbacke bokk na ci ñi nga xam ni non kilifa yëpp laa am njortu rafet ci ñoom mm-hmm. mais am naa njortu lu rafet ci moom ne su fekkoonte ni nit ñi ñi ngi koy jege di waxtaan ak moom yeneen kilifa yi di waxtaan ak moom te yeneen euh, autorités yi di waxtaan ak moom yàlla mën na def suñ gox bii moom yàlla mën na leen a jegeere hmm. waxuma ni ci des defuñu dara de effectivement ñi ngi def mais moom dama ko ràññee ci lu mel noonu lu jiitu te aussi jikkoom mate na ko dëgg la maa ngi koy nuyu di nuyu waale mboolem imam yi nekk ci dëkk di nuyu waale mboolem kilifa diine nekk ci dëkk bi di wax ne kenn ku nekk ci nun daal li muy def na ko def ci njortu lu rafet. Mhm. na ko def ci cons conscience bu na ko def parce que lii la jàpp ni mooy mooy dëgg te lii la jàpp ni mooy yoon. Mhm. te loolu nag ci histoire u l'islam mas naa am donte ak si wul fii mas naa am. Abdullah ibn Abbas moo jóge Sham fekk yonent bi ak waa këram Madina Abdullah ibn Abbas ñëw ne. ci xadiisu kuréel yi Abdullah ibn Abbas ñëw ni waaye yéen da ngeen a wari mm-hmm. ñu ne ko ah wari nañ kay mu ne ñun de wari wuñ démb ñu ne ko lu tax mu ne gisuñu weer wa ca gox boobu ñu ne ko du ngeen wari mu ne hakada allamana rasulullah sallallahu alayhi wasallam lii la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngal kon dafa agsiwul woon fii mais nag euh, doon na am waaye façon ba mu doon amee ak façon tey wute nañ kon nañu def nañu góorlu ci ñaar nañu organiser wu nañu moytu par parloo bu ëpp. Mhm. par parloo mënta ñàkk mais par parloo bu ëpp nañ ko moytu su ko defee buñ ko yàggee moytu rek kenn ku ne am jot lu rafet ci sa mbool bokk rek. Mhm. bu yàggee incha allah organisation bi. dina normal dana gën a normal incha allah. xam naa ne comme benn plateau la boo xamante ne yàlla dafa dogal ma nekk fekk sama yeneen nawle. Mhm. ñoo xamante ni ñoom tam. dañu am xalaat ci mbir mi. moo tax bëgguma guddal ba mu ëpp. Mm-hmm. waaye mën naa gën a dem incha allah. incha allah waaw tonton Ngari. Mm-hmm. koor yow ci suukar koor laa lay laaj suukar koor nga xam ne na réew mi atas na réew gis koo xam ne tonton Ngari keroog dafa jaay chaîne oram. moom mm-hmm. maanaam pour pour pour pour jën pour pour jëndee ko ay ay bagages yoo xam ne dafay koy terle ay ay borom ñëkk est-ce loolu jar na ko. jaru ko te doo ci am payu yàlla. folklore bi mu ëpp ci diini ji. dañ ko dugal ci ji léegi ba mu xam nga bu demee ba sëy ci tas ak may ma sama baat di jib ci suukaru koor mhm. caaxaana que suukar loo suukaree koor jarul dem nañ ba euh, da ngay gis famille boo xam ni jigéen ñaa ngi ci kër gi sëy mais am na jigéen ju nekk Ndakaar wala feneen maanaam moo ci ëpp doole. Mhm. ci jabaru doom yi kenn la ci. mais moom buy ñëw indi suukaru koor oto lay indaale. dëgg ak ñu koy ñu koy tëggal bongo wala ñu mel noonu. di ko wayal ci koor. ngi indi suukaru koor bu fa fekkee soxna soo xam ni ma yàlla bal matul day daal di jënk. Mhm. te or que kër yi ñibbi waxaat mu des ak ñawoon ci kër gi ñoo ñaay togg di ko jox mu lekk ñoo koy fóotal ñoo koy paaseel mais daf leen di doyee jël ndax jëmm ji ñëw. parce que indil na ko benn raafkaat wala benn oto. indil mhm. ko or jox ko ko mu commencé di ko tagg loolu du suukaru oto la. sukkar ko la ko taxul jug du loolu du ay or du ay jamaa du ju nuy mel dafa dem nag ba ëpp fi mu moo dëgg yam kenn ñemeetu ko. dëgg la ku sa mbokk dee sax da ngay am problème parce que nag la ñuy njëkk séentu ci loolu. Mhm. kon bu koor jubee rek ngis jigéen joo xam ne ma ngay lox. sama gore bi laa war a yóbbul su koor góor moom di nag day dem ba indi maanaam mu indi ko ay problème mais pour lan pour lan. suukar kay da ngay yóbbu suukar. Mm-hmm. amaan amaan man loolu laa xamoon tonton ah, Ndao dëgg-dëgg amaan sama âge àggul foofu noonu mais damay dama damay damay daan dégg ñu naan mag ñi mag mag ñi daan naan bu njëkk ñaari kilo suukar nga daan yóbbu wala benn kilo suukar joxe ko loolu mooy suukaru koor imaam. mais léegi suñ demee bay jënd ay ay ay jasneer ñii di jëndi or ñii di jëndi oto romb na suukaru koor. xam naa ne jubluwaay bi maa ngi jégalu. Hmm. ci jëlaat kàddu bi jubluwaay lañ ci namoon bu njëkk baaxul. tey mhm. jii sëriñ bii bu fekkente ne moo kii dañoo xamante. Mhm. Eh, soxna kii tane soxna kii. Mhm. te ñoom ñaar ñu xamante. par exemple soxna kii gis ne moom bu joxee suukaru koor soxna kii dana nekk loo xam ne lu koy jëriñ ci yow nga am benn doomu bàjjen wala benn doomu nijaay wala xame ci koñ bi. nga xam ni boo yëkkatee sukkaru koor jox ko dana ci mën a. dana ci mën a jëfandiku. parce koor gi lu gën a bëree bëri suukar dañ koy utiliser. lu bëri mm. suukaru koor. Mm. léegi nag mu dem ba nga xam ni ëpp ëpp na. ëpp na de. mi ngi mel ni rek euh, li nga xam ni moom ngeen di def yéen jigéen ñi di ko wax ndawtal. Mm-hmm. xam nga ndawtal lii ko jur mooy dañ daan def bu njëkk bu fekkente ne jiw am na xew kii indi dugub kii indi soow kii indi nàngam mm. kii indi nàngam ñu boole jox kii xew la su boobaa moom xewam boobu du ko xaw a yëg. la mu waroon a fare day genn wàll ko du ko fare mhm. léegi nag mu nekk dimbalante ci nit ñu dem ba mu yàgg ñuy affaire bi ëpp ñu dem bay wut kaye ñu dem ba mu yàgg ndawtal bi ñu koy toppante maa la ndawtaloon da nga may ndawtal mhm. loolu lu gën a bari ci jigéen ñi lay am mais ci góor ñu du ci am mhm. parce que dañoo yamale mbir mi kër koor yi itam am na nuñ ko doon gérer day nekk lu am solo mën naa la jox benn exemple ci man mii man xam nga ma ko yor dara. waaye ci koor gi may way waxee am na lu ma fanweeri buntu kër ak ñaar wala ak juróom-ñaar yoo xam ne kenn ku nekk kii bii passé jox naa la dara nga xam ne loolu jógewul sama poche xëñ na damay ñëw ci sëriñ xamante ak moom mu bëgg tuyaa jox ma mm-hmm. ma ñëw ci sëñ bi mu tuddati sëñ Dame Guèye. Ah, sëñ Dame mu am bëgg tuyaaba jox ma. ma ñëw ci yow nga bëgg tuyaaba jox ma. ma ñëw ci sëñ Gaare mu bëgg tuyaaba jox ma. ma dem jënd sama sukkar jënd sama tàng ma séddale. Hmm. loolu am na ci dëkk bi. Hmm. am na ñoo xamante ni fii mu ñu ngi dimbalante ci dëkk bi di joxe sukkaru koor. Hmm. te demuñu sax bitim réew. comme ni ko xale yi di defee. léegi loolu loolu lu am importance la parce que ki koy joxe day xam lu ittewoo ci koñ bi. ñi gën a ittewoo maanaam. man ngaa ñëw ci sëñ daam ngay jox ko te doo jox sëriñ mm-hmm. parce que da ngay xam situation sëriñ xam situation sëñ daam man ngaa ñëw ci soxna awa jox ko te doo jox uh, sëñ gaari parce que da ngay xam situation ci exemple mm-hmm. da ngay xam situation bi <coughs> situation kii am na benn mbokku eh, parce que moom sëriñ boo gisee may jël exemple ci moom mm-hmm. damaa xam ay mbokkam am na mbokkam muñ daal wax yàlla ko yàlla yërëm amoon eh, Amadou Batour Diop dëkkoon kër Amadou Yàlla hmm. eh, te ma jàngale fa xam ko xamante ak moom hmm. eh, bu nawet bi daan commencé buñ ne taw na rek day ñëw ba jël borom kër yi am ko ñoo xam ne ñaari saaku ceeb la leen jox am ñoo xam ne benn saaku ceeb la leen parce que xam na kër yi suñ demee ba nawet bi dem ba ñuy bay mu hmm. defaat noonu xam nga kooku ceeb boobu muy joxe loolu loolu loolu mën nañ ko tuddee sukkaru koor hmm. même daf ko daan def nit ñi di ko comprendre xam ni kii moom yàlla daf ko may dara mu ciy dimbali nit ñi léegi bu fekkoon ni ci façon boobu wala bu ne mel lañ ko gérer bu boobaa sukkaru koor du lool dëgg la mais fi ne dafa àgg si loolu daal ab explication la woon boo xam ne dama koy joxe ñu baal ma rek tur yi may tudd mhm. mais tudd moo ko parce que ñoo fi dama gis ne loolu am na ñeneen ñu ko mën a def pour am ci tuyaaba dëgg la di la gërëm bu baax a baax ci leeral bi nga xam ne leeral nga ñu ko sëñ daam si ñu daal di ñëw tuuti daal di bàyyi ñu daal di soufflé wu euh, euh, sax daam maa ngi naan sëriñ baal ma daam est-ce que mën nga ñu wax tuuti sa carrière waaw ah, salaamaaleykum waa rek ñu ngi ziar bu baax bala ah, ñoo jàll ci loolu yi di nuyu suñu waajur yi kilifa gi oustaz mhm. maanaam di rafetlu kàddoom yi bu baax waaw mhm. ah, dégg kàddu yoo xam ne it kàddu am solo la mhm. te ñoom kilifa yi lii rek la leen di doye ci réew mi te it ñu ci mën di doxee ñu ngi ciy def seen <coughs> lay kàttan ñu ngi ko ciy ñaanal wér ak ngërëmal suñu borom ak mm-hmm. Seydina Mohamed mm-hmm. di ziara tamit suñu jëwrin ji muy sëriñ mm-hmm. moom nga xam ne suñu mbokk la suñu lépp la daanaka népp nu ñu mel rek ci wàllu ñu dajeeg suñuy nawle maanaam yi ñuy sol lu muy jag-jag ci seen loxo yi lay jaar ñu leen di ñaanal suñu borom kàttan na leen tamit waaw gën a taw feexeel liggéey bi daal su ko defee it suñu <laughs> paar ñaari mooy ñu ngi lay jaar bu baax Fatuma Sall <laughs> koy bëgg bu baax di ko jox waaye it soxla si fàtte wala benn yoon. Mhm. <coughs> waa télé rajo bi yëpp leeral TV. Mhm. di leen santaat bu baax seen taxawaay it rafet na lool ci askan bi mhm. waaw loolu ngi ciy amaan mbégte bu te it bu ñu jugee ci loolu comme ni nga ko waxee rek nga xam ne ci wàll wi nga xam ne ci leen féete. muy ci kalimatul xaq bi wàllu zikkar si. nga xam ne amuñu lu dul moom. tey bëgguñu lu dul moom waaw tey bu nu sañoon lépp lu nu am ci àdduna walla lépp lu nu mel ci àdduna mm-hmm. zikrullah moo ñu koy def mm-hmm. waaw tey mu mel ne loolu mooy sunu yéene ak it loolu mooy sunu bëgg-bëgg amuñu leneen lu dul zikar si bu nu sañoon lépp lu nu ku baax ki di may foofu la koy jaare mm-hmm. bu nu sañoon lépp lu nu amit foofu lañ koy amee. Mm-hmm. ndax amuñu dul sikkat si tey amuñu lu ko gën a kawe. waaw mu doon loo xamante ne si boo xoolee àdduna ni mu toll. Mm-hmm. kenn ku ci nekk ak sunu boroom lim ko xiir. Mm-hmm. tey kenn ku ci nekk sunu boroom lim la dénk ak bëgg-bëgg bi nga ci am ak tolluwaay bi nga ci am léeg-léeg nit bu nekk ci sàcc sax day jàpp ne sàcc boobu moo gën lépp. moo tax heure bu xëy di ci ne dëgg ki nga xam ne ci wàllu drogue la nekk walla mhm. euh, leneen kii mécanicien la kii jàngale kii nangam kenn ku ci nekk la nga opté ba téye ko sa loxo rek da jàpp ne loolu moom moo gën ci yow mhm. waaw nag amuñu benn bëgg-bëgg lu dul zikkar dëgg la waaw moom daal lañ jël teg ko suñu kanam. di mhm. ñaan suñu borom it mu ndamal ñu ci daal. amiin amiin. lan moo dugal ci ci ci ci ci zikkar bi da nga ko doon wala da nga nekk loo xam ne da nga ko jut rek bëgg ko suñu borom jàppale te nga ciy dem. waaw ndeysaan mu mel ne sànq damay dégg fi ngeen di laajee ak fi ñuy tontee rek. Mm-hmm. mën naa cee ñëw ci lu ndaw. Mm-hmm. xam nga ndaw dafa doy waar. dëgg la. dafa nekk loo xam ne lu yéeme la. Mm-hmm. gis nga nit ki bu juddoo maanaam ba ay way juram suñu borom. ji jiital ci suñu boroom sàmm gi mu ko ko sàmm. Mm. ba boole ko ay woy juróom ba ba nga xam ne bu ñu avancé tuuti rek bu génnee ci télé léeg-léeg dina toll ci nàmp di war ba jóge ci loolu. Mm-hmm. dem ba mën a dox léeg-léeg suñu borom dem ba dénk ko xel ak xalaat ay way juróom kenn ku ci nekk fa nga war a jaar ak moom. Mm-hmm. nga jaar fa ak moom waaye léeg nit moo xaw a doy waar su demee tuuti rek. day commencé di am ay bëgg-bëgg. Mhm. day day am xelum boppam day xalaat. day am loo xamante si ne bu sañoon lii lay def. Mhm. na ma yàlla jéggal léeg-léeg di nga gis nit mën naa gis ku ci mel ne kilifa gu mel ne El Hadj Malick wala Bou Kounta Ndiassane nga gis xale ci kooku lay roy. Hmm. léeg nga gis xale ki muy roy mooy gaynde la. Hmm. boo waxee mu ne la man gaynde laa kooku la def idolam. léeg-léeg nga gis xale ab woyu lay roy. Hmm. dëgg la. koo xam ne ab agresseur lay doon. Mm-hmm. di nga gis xale fi mu teg bëtam mooy. Hmm. sàcc lay hmm. mm-hmm. ba ci léeg-léeg nga gis xale yi tey jamono bi ñu toll sax liggéey nangootuñ parce que dafa am ñoo xam ne dañ koo def royuwaay ci ñoom. waaw xam nga toog ci yenn bërëb bi muy neex kenn ku ci nekk ak sunu borom la biir daal. man nag bi mu lu dimbali rek comme bi ñu xawee xàmmee tuuti rek. sunu borom xaw ñu xiir ci lu mel ne zikar siin ndax bu juddoo ba léegi ñun xaw xaw ma kenn mhm. Cheikh Ibrahima Fall rek laa xam mhm. waaw te it sunu borom moom mooy dogalal noonu moom mooy defee ay mbiram noonu mhm. depuis ma xam-xàmmee dama xam ci moom mag cofeel gu yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo daanaka bëgg googu nga xam ne euh, moom laa ci am moom moo waral daanaka ba yóbbu ma ci wàllu zikar si waaye boo xoolee tamit ci sama côté wayjur wu jigéen euh, muy papaam mm-hmm. ab jàngkat la woon ci ay jamono yu njëkk maanaam ci xasida yi la daan nekk ñoom mm-hmm. jàng doole yooyu dañ nekkoon waaye mu daal bu dee ci côté roy dama koy jën ci wàll woowu waaye leneen la ci des moom ak bëgg-bëgg boo xamante ni si ne man maa ko opter sama bopp daal mm-hmm. comme ni nga ko waxee ñu gisee ni bëgg-bëgg moom moo la ci dugal bëgg-bëgg googu nag ci la ñu bëri xamee est-ce que est-ce que est-ce que maanaam sa carrière bi nga xam ne yaa nekk am na ñoo xam ne ñu ngi la ciy jàppale. waaw waaw parce que jamono bi ñu toll moo doy waar. Mm-hmm. fi toll nii jamono ji doyloo sa boroom la. dëgg ndax tey jamono ji toll na foo xam ne tey ki ngay yaakaar dem ba tey di ko wut wallu yaakaar naa loolu sax moo la koy gën a yittewoo. la. jamono jooju lan toll maanaam fi ma mën a tënk mbir yi jàmbaar amul nag kuñ dimbali moo am. Mhm. waaye boo xoolee suñu réew mi dafa xaw a doy waar léeg-léeg eh, yàlla boole la ak ay nit ñoo xam ne danañ am yéene. Mhm. pour jàppale la ci li nga nekk. waaye suñu borom kàttan gi leen di dénk mooy xel ak xalaat. maanaam ak seeni xol ak yéene la ah, am na ñoo xamante ne si ne dina am cofeel ci yow tamit yor na loo xamante si tey war na ko mën a jàppalee ci liggéey bi. Mhm. waaye xëy na it tey jamono moo leen di jàpp. dëgg la yoo xam ne kenn mënu ko. Mhm. waaw waaw na ñoo xamante ne si nag ñoom mën na noo yor lu jeex waaye seen wàll dul côté ndax kenn ku ci nekk ak la neex. ak li nga gëm waaw ak li nga gëm. léeg-léeg da ngay xool fi jamono ji toll. Hmm, sànq kilifa gi mi ngi koy wax. Mhm, euh, tonton gaar yi waaw mu ngi naan tey. nit ñi tey dafa am lu ñuy joxe. Mhm. ñu nga duggee ci muurum koor. Mhm. tey li gënoon rafet ñuy xool ci anam ba mu gën a rafet di ko defee noonu waaye rien que nit ki da koy def pour. gis leen ma gis leen ma di am lu mu ciy jublu. Mhm. kooku daanaka kon gistal la. dëgg la te jamono ji foofu lan toll. nit ñi daanaka defatuñ te yàlla tax. dëgg la waaw da ngay gis léeg bu ñuy jëflantee ak nit sax bu buñ sañoon caméra yi tàkk waaw mbokk taal bi yëpp ñëpp teg seen bët ñu mën a nangam la ñuy yaakaar naa ne jëf jooju moom dafay xaw a kéemaan. Mhm. waaye fi ñu toll niin nag moom wax dëgg yàlla. ñu ngi sant. ñu ngi sant bu baax a baax mhm. baax ñu ngi góorgóorlu di def suñu kémt lay kattan ba suñu borom ndamal ñu ci biir liggéey bi. Mhm. waaye doomu aadama buy dox mm, nit nitay garabam. dëgg la. ndax suñu borom dafa doy war mooy bind ay nit xool kenn ku ci neex mu xool dayoo bu ko neex mu teg la fa. dëgg la de. Ah, ñii dañuy néew doole. ñi toll nii ñi dépassé leen ñi tollu na leen moo tax suñu borom dem na bay bay waxtaan ak jaam ñi bokk na ci li muy gën a euh, xaw xale bi nit tuuti wala mu koy mbugal ak yu wala muy am merci moom mm-hmm. nga tane sa moroomu jullit rek moo xam ci anam bu ne la mm-hmm. xam ne lii war nga koo jëflante moom te yàlla tax maanaam nga téye sa bopp loo xam ne lii waroon nga ko ci dimbal te defoo ko rek mhm. daanaka loolu ab ab yan bu diis la bu ëllëgee sa diggante ak sa borom dëgg la naa ne ko xam dara tuuti sax di nga xam ci li may wax mhm. mooy ndimbal rek mhm. ki li nga ko tane moom te yàlla sax kon dafa yaatu ci wàllu ci wàllu moo xam ci wàllu lekk la wala kii dafa bëgg a dem fee amul ko yóbbu nga yóbbu ko wala kii aajoom lii la nga war koo jëflante ak moom te jëflewoo mm-hmm. loolu it xëy joxe yombul daal waaye xëy na tamit am na ci ñoo xam ne am nañ bëgg-bëgg ci suñu jëmm yi dëgg la am na ñoo xamante ne sii ah, ñu ngi waaj am na ñoo xamante ne sii ne am nañu yéene mm-hmm. waaye tamit duñu wax kenn bu ñu defal nàngam dëgg la waaw tamit duñu doxe noo xam ne it waruñu ko doxe waaye mm-hmm. képp ku ñu jàppale ci lii ñuy def dinañ la sant te it dinañ la gërëm dinañ la ñaanal suñu borom yokk la teeg ëllëg. Mhm. ci bëgg googu nga bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall comme ni nga ko waxee ci lan lay bàyyi nga daal di yëkkati baat bi plateau bi daal di xaw a xumb tuuti am nañu mel. Mhm. nekk ay la nekk alxamdulillaahi ba buur yàlla defee ñu nekk ay jullitam te la nekk fee yowmal xiyaam yu tàng yaak yu metti ya yàlla nañ ci mucc ba dajeek yu sedd ya ngir jannatul firdawsi moom lan ci taamu te di ko ñaan buur bi yeyog jaamu te ku fi jaamu beneen buur bu dul moom sa jaamu niil na ndax buuri buuri mooy moom moo bind asamaan si ak suuf si ak lépp lum ci manti doon moo ko dogal ci fépp yàlla na nu yàlla xiir ci wax lu baax ak di ko def yërmandem gi baawaan ci ñun yàlla na ko def amin bi jaahi Mustafa al maxdoomi bi barakati cheikhu Ahmadul Xadimi àdduna ndax day bëgg a jeex am gaañu baax ñey bëgg a am mbër yu ndaw yey bëgg a mu gaañi xam naka pexe ka xamle woon ak tarbiya Cheikh Ibra Fall ak a xamoonu tarbiya mu bun demee ba surga ya ku leen di wax naka pexe ka woote woon àdduna ba ñépp wuy ji fàdduna nan jéem a dëddu àdduna te jéema wuy ji mooy pexe Cheikh Ibra Fall ngëm galande moo tax mu dëddu àdduna fekki na Bamba sotti na wàcc na aljanay texe Cheikh Bamba dem ci tam sasin Cheikh Ibra dem ci wam sasin moo ñi fi des ku ñuy dese yoonu murit naka pexe Sëriñ Maxtaar Ture nga yori joor yanu ko jëm Mbàkke Kajoor sëriñ bi yónni ko ca buur Cheikh Ibra topp ci ak pexe wax na ne tuuti kon mu dem fekki sëriñ ba lëmbiram ba kenn du jot ci ba baatinam lu dul ca bis ba nuy texe Cheikh Ibra Faal amul moroom sàkk na yuy roy ci moom leeral na penkam ak soowam moo xàll yoonu muridulaahi waaw kon ñu ngi tubaab wax baax. Eh, ci ak sa neex na la wax daam. waaw daam de xanaa di ko ñaanal yàlla mucc. Mhm. yàlla muccal baatam te gunge ko yàlla comme gunge nga am ndam. Mhm. Euh, moom laa wax sànq mook sëriñ parce que man observateur la damay mhm. gis. waaw Macky Sall sama xarit laa ci ñëw. Euh, dama nekk dans le milieu. xam naa la ci xew. daf ci néew parfois da gis koo xam ni tubarkal la bu àddoo baatam ñëpp ni ak sa su paree def leneen ñaaw ñaawteef soo ko ca fekkee dootoo ko naw dootoo naw la muy jëf xam nañu gaañ mm-hmm. mais ñoom dangay gis sax ñeneen su ne daam gay day jàng fenn is ko sa waay man awma temps ca daam laay jëm kilifaa koy wax da koy seetaani mm-hmm. te ñooñu bu leen taxee jug la leen tax jug njëriñ la mm-hmm. maanaam kenn gis dafa doon exemple ñaaw tef newul ci moom jéemu ko moo tax ñu nga saf leen su fekkoon man nga lool dàq leen ko te am noo comportement duñ ñëw kon moo tax man yàlla na ko yàlla musal tugg nga ko fi jamono toll parce que ndaw day toll foo xam ni li koy bëgg a bari yàlla dalay bëggal ci boppam seytaane taamu la adduna taamu la mais yàlla nga mucc yëpp des ci yàlla parce que boo des ci yàlla rek dalay aaral boppam moo tax sànq wax li nga am ñoo xam ni su la nit ñi xamee rek star mooy saa boo ko woowee téléphone du la wuyu. dëgg de. boo ne ko sëñ nangam mu la noonu munu aw ma temps boobu mi ngi aju feneen. soo ko fekkee këram mun la damay nelaw. Eh, sodaaf gi nu nekk dañuy waxtaan ak gars yi waa ji ne ma dañuy sawar tur benn waykat ñu ma daal boobu buy ñëw si jël si droit d'auteur daal dañuy dañ koy xaar noonu man ko te mun ma fii la koy tasaare du ko yóbbu. Mm-hmm. su ñëwee dugg bureau bi daal ba ba jox ko li mu koy jox su génn noonu lay commencé ba wàcc ci suuf. nga xam ni jaayul star maanaam jéem ko doon mais yàlla moo ko teg ci kawam. Mm-hmm. loolu moo leen dal moo tax euh, li ngeen def nii dafa am solo parce que yàlla mënu naa xiir feneen. mais mm-hmm. fi mu la xiir ci biir dina ji la. ci kim la xiir moom ci ku mu xiir ndam la ci moom. Cheikh Ibra Fall ndam ndax lu ñu mën a wax ci yoonu murit moo tax. kon yal na la yàlla gën a taxaw gën laa jàppale nga mucc ci lépp ru seytaane mm-hmm. te la ca kanam aussi mooy dàq. Euh, danañ ca gën a taxaw ñun ñëpp. parce que nag waaw parce que daf ci am loo xam dañ ko war di am ñoom. Mm-hmm. mu dal ci biir Sodav ñoom ñëpp a déposé woon am naay yu ca xew yoo xam ni boo ca ca kaw la mais suñ sañoon lii dal ñoom ak Kasa Samba ñëpp nga xam ni su su su jot seen droit jotee ñu jot lu bari. Mm-hmm. yoon woo war ngeen caa tegu parce que nag ndamal artiste yëpp lay doon. kon yàlla yàlla gën leen a gunge. Mm-hmm. macha allah bat biir euh, yàlla ko yàlla sàmm daal yàlla ko yàlla sàmm. yàlla yàlla sàmm leen ba li nga ci bëgg lépp suñu borom defal la ko foog nga sànq ma wax ci ndaw ñi man damaa bëgg ndaw li def dara xam nga coow li mooy état dimbali ñu saa looy def am man ne damay xaar état waaw amul benn profession non man daal maa ngi nii waa kooku noo koy dimbali tey daam ngay boo ko bëggoon dimbali soo ko ministre la culture woowoon ni ko loo bëgg mais dana ko damaa bëgg def album wala damaa parce que ci ci profession bi muy def moom dana ci mën exercer su ministre bi woowoon tey artisanal Serigne Diop ni ko loo bëgg a def mais xam na li mu bëgg a def moom mais am na xam boo leen woowoon tey da nga jaaxle. xamuñu lu ñuy def ñoom. dañoo am benn profession amuñu maanaam xamuñu lu ñuy def. Mhm. moo tax ba ma gisee awa ci ci ci 4 avril bi muy maaj léegi laa koy wax. damaa def lu doy waar. Euh, sama yaram dafa daw ci ñoom ñëpp aussi parce que gis ni c'est des jeunes diplômés ba noppi engagé wu ci liggéeyu ndaw ñi. parce que tooguñu di xaar. Mhm. moo tax sànq bi awa nee état man état laa ñun ñëpp état lañu mais état li ci neex mooy mu dab la mhm. état bu ñu leen sëriñ ah ñu ne dañu laa seet si woon ci atelier mu ne ak seen ci biir. gis nañ ay machine am gis nañ taabal day xam ni kii pare na ma. léegi da koy lu ma la mën a jàppale mais fan laa la mën a jëmeen fu la ko état wax da lay kon nag moo tax ndaw ñi war a gën a góorgóorlu. ku ne am ci loo ne. xam sa bopp d' abord. Mhm. parce que état du dimbali kenn da lay jàppale. dëgg la de. yàlla na yàlla dimbali. amiin amiin amiin di ziaraat tamit sama waa staff DGZ. ah daam am na staff. ah bien sûr ah, sama waa staff DGZ maa ngi leen di bëgg ñoom ñëpp. di leen jox seen wàccuwaay. Mm-hmm. mooy Dame ñoom it ay ndaw lañ. Mm-hmm. Euh, seen loxo jotul seen ginnaaw. dëgg waaye ñoom lépp lu ñu am. Mm-hmm. bokk kook sama jëmm ji. waaw fu ma nekk ak fu ma nekkul. li ñuy daj ci sama jëmm ji sax daanaka du ma ko mooy mu mel ne am na ñoo xam ne seen xol ak seen xalaat ak seen jëm lépp dañu koy jox. Mhm. kon ki la defar loolu bu amoon àddunaa li ci biir yaa ko moom. dëgg la kon ñoom amoo seen fay. Mhm. mu mel ne ci loolu nga wax léegi mës naa fi def benn album. Mhm. Ah, benn jamono bu yàgg yàgg. ba jógee ci loolu tamit defaan naa fi trois single. yàggul dara ba benn bi sax bi ma ko mujjee def yàggul jamono yee hmm. muy alhamdulilah bi nga xam ne jamono ji sax daanaka ñu ngi ci wàccaayu hmm. pour def ko ci lu ci mel ne clip ak wala yu demee noonu hmm. yooyu moom vraiment ñu ngi ci fexe di góorgóorlu bu baax a baax a ci ko mais est-ce tamit daal moom mu ngi dem ci autorités yi maanaam ñi nga xam ne ñu ngi fii ci Louga pour ñu mën ko jàppale ah waaw autorité yi de wax dëgg yàlla euh, sama diggante ak ñoom xam naa dafa demewul noonu. lu tax loolu xam nga dafa am cirque boo xam ne nandu ko yu ci mel ne ay mbirum comme ñoom fi ñuy doxee wàllu politique exemple kii mm-hmm. daanaka ñoom ñi ciy jëflante ci seen biir rek ñoo ëpp li ñuy xamante wala sax. dëgg la. moom côté boobu suñu borom dafa ma ci liiwul xëy na. moo waral suñu diggante demewul noonu daal. daam du du yow rek de ñàkkatu googu nun ñëpp la ca gannaaw la nu bàyyi jàppalewuñu kenn. wala moom bay woo ko ca kaw ma ma dimbali la ci moom dimbaliwuñu kenn. ñu gis ko ñu ñu gis ko ni moom moom moom mi ngi dem ci programme yi mi ngi tëgg ay mariage ñu gis ko parfois tamit génn Louga parce que damay gis xale yi di la topp ngay génn Louga. Euh, mu mu nekk jeune boo xam dafa talentueux. Hmm. Hmm. mais mais ñàkk ku ko jàppale moom moo tax amaana àggul fenn fii nii est-ce que tamit jotul euh, euh, mu moom ak ay stafam ñu jéem a ñu jéem a dugganteeg ñi nga xam ne moom mooy autorité autorité yi nga xam ne ñoo nekk Louga. waaw waaw comme ni nga ko waxee rek foofu lañ toll mooy ci jamono jooju lañ toll. Hmm. daanaka nit ki lu ci bëree bëri boo ko dee xaar. ci moom pour mu jóg jëflante ko ak yow day xaw doy waar anam comme li nga wax rek kon buñ tollee ci jamono jooju léeg-léeg bu fekkee noonu la demee euh, buñ demee ñi nga xam ne war nañ cee waxtaan ak ñoom ñu dañ ciy jéem a waxtaan ak ñoom ñi nga xam ne suñuy kilifa ren marché bi ñoom fépp foo xamante si ne xelal nañ ci loolu mm-hmm. waaw fu mën a jaaral ñu loolu incha allah buñ yeggee kon dinañ jéem a waxtaan ci loolu mm-hmm. ci liggéey daam ñu gis ni yaa ngi am programme est-ce que mën nga ñu njëkk wax tuuti ci programme yi nga xam ne am ngeen ko après Korité gi. waaw waaw waaw programme yi moom daanaka duñ ci jóg <laughs> ba comme mu mel ni ci léegi rek ñu ngi war di yëngu fii ci place publique bi léegi. Mhm. daanaka bu ñu fii incha allah faran war a yegg waaw bu mel na tey bu ñu génnee ci Korité gi euh, yitte gi ñu gën a am. tey sama waa koñ muy waa Touba Seras ñoom it maa ngi leen di nuyu au passage aw ma seen fay ñoom it euh, mm-hmm. sama carrière liñ ciy jëf dafa bari liñ ciy dund dafa bari daanaka mën naa ne nelaw guddi duñ ko def bëccëg duñ ko def. fépp fu ma nekk ñu bàyyi seen yitte yëpp fekk ma fa waaw léeg sax ñu jàppanteeg nit ngir sama jëmm ci te jëfaluma leen dara muy waa Touba Seras bi yëpp di commencé ci sama woy jur yi. ba ci ñi nga xam ne ay xale lañ ñoom ñëpp noonu lañ taxawee ba bu nga xam ne dañoo dem ba toll benn jamono boobu jëfandiku leen dara nga xam ne dañuy organiser benn bis boo xam ne dañ koy def sargal daam yaakaar naa ren mooy quatrième édition xamul cinquième. Mhm. waaw nga xam ne bu ñu korité ba le 29 avril bu ñu korité ba pare lay doon. le 29 avril. waaw nga defee fële Touba Seras. sama mhm. wetu sama buntu kër. waa Seras gi yëpp ci ànd. Mhm. ñooy jël seen alal di ci def den jël seen lépp di ci def kon bis boobu bis mu gën a rëy ba gën a rëy sama bët. bis boobu noonu dëgg la. ndax kon bis boobu rek laa xam donte ay doomu aadama ñooy bàyyi seen yitte yëpp di jël seen alal di ko def ci bis boobu ngir sama jëmm ji. man mhm. amuma lu gën a kawe bis boobu. dëgg la te ñoom dama leen di ñaanal bu baax suñu boroom yàggal leen fi te leen boppam. Mhm. ñun moom ay jaam rek waaye am nañ droit ñaan suñu diggante ak suñu mm-hmm. mu jëfandikoo bu bu loolu weesoo it am na concert boo xam ne amoon la nañ ko fii daaw biñ tabaskee ba pare dëgg la euh, nga xam ne fii lañ ko defee place publique moo jàkkaarloog mairie mm-hmm. yaakaar naa képp ku nekkul Louga mën naa ne sax gis nga ci sa bopp. Mm-hmm. mu nekkoon bis boo xam bis bu yaatu la bu waa Louga yëpp ràññee bu waa Louga yëpp teg loxo. waaw ñoom it. Euh, vraiment aw ma ci seen wàllu nga xam ne côté bu ne jàpp nañ ci boobu daal bokk na ci li nekk suñu kanam. Mhm. ak euh, yenn euh, single yi nga xam ne jot nañ ko cee def lu ci mel na euh, waxtaanu yaman bi. Mhm. ci karu yaman bi ak alhamdulilah yooyu yëpp ñu war ko defaat clip yooyu yëpp xam naa bu ñu génnee ci corté gi incha allah dinañ ko song. Mhm. waaw bu fi jigee tamit am na yëngu yoo xam ne ñu ko defee fii ba Ndar. saint waa waaw Saint-Louis incha allah. Mhm. Dakar it war nañ faa dem le 26 incha allah bu ñu génnee ci côté. Mhm. waaw yooyu noonu yëpp daal mi ngi sama kanam waaw ba ci dëkk yi yëpp dañ ko bàyyi ba ci ñoom rek ñoom war nañ faa dem le mercredi ñu ngi ci toppal. incha allah mercredi ngi jëm ci toppal incha allah waaw programme am daanaka nit ñi ñoo koy bëgg. Mhm. waaw doon nag lépp sunu kanam la nekk saa su nekk daal ñu ngi ci wàccaay ñu ngi góor góorgóorlu ci liggéey bi di ñaan sunu borom daal mu kattan noonu. Dame say projet lan la ñu bàyyi la nga tàggatoo. ndax comme ni ñu ko waxee sànq rek. suñu projet moom du lenn lu dul liggéey bi maanaam liñ teg soon tànk tey mooy lu dul liñ teg soon tànk tey am ci bëgg-bëgg nga xam ne bi ñu xàmmee ba léegi ci loolu lañ nekk muy kalamatul xàpp bi maanaam yéene gën ci am ak gën ci bëgg a ñaan suñu borom rek mu intervenir ko yi koo xam ne doomu aadama la ku ci mën a teg loxo jàppate ci yàlla tax rek maanaam ñu lay ñaan ñu lay woo nga teg ci loxo mm-hmm. que jàmbaar amul ci dimbali doo nga am bu mu jugee ci loolu tamit di bëgg sama mbokk taalibe yi sama mbokk Baay Faal yépp mm-hmm. nga xam ne ñoom ñoo bokk liggéey bi mënuma dem sans ñoom ñoom it mënuñoo dem sans moom. Mm-hmm. ñoom it maa ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax di leen nuyu kenn ku ci nekk sama mbokk zikarkat yëpp waaw di bëgg tamit sama waa bu baax ji muy Cheikh Abbas Mbacke tamit sama baaxkat bi. Mm-hmm. nga xam ne it moom rek laa am. bu ñu ci loolu daal li ñuy gën a sànni ci nit ñi di ko gën di bàyyi xel. Mm-hmm. mooy liggéey bi fi mu toll. ku ci mel ne daam man di ko awale foo xam ne tey. maanaam rafetul ci gis-gin mm-hmm. gis-gis rafetul ci doxin rafetul ci waxin mm-hmm. maanaam foofu rek la ñuy gën di soññee bu baax mm-hmm. ndax fi ñu gën a toll boo xoolee tey jamono bi ñu toll nii da nga toll ci benn jamono nit dana rëcc ci biir këram ne bàyyi baal laa bëgg a doon sax way jur yi ne sama doom yàqu na dëgg la fi jeexu fi xaaj te daanaka dafa am tuuma boo xam ne. Hmm. maanaam dañ koo tegoon magum démb. kon ñi nga ñi nga xam ne ay ndaw la euh, buñ tollee suñu jamono ji war a liggéeyal ku baax ki. Hmm. ñun war na noo nekk ay exemple war na noo maanaam di dox ci doxin bu rafet. Hmm. di wax ci waxin bu rafet. képp koo xamante ne si dafa tënku ci liggéey bi ci maam Cheikh Ibrahima Fall. tey ku yàpp yoon wi parce que loolu ci ci li ma laaj ci laay ñëw. Mhm. projet loolu lépp suñu. projet la waaw waaw. loolu lépp loolu moo gën a doom suñu yitte. Mhm. amuñu ku dul Cheikh Ibrahima moom rek am. Mhm. te bu demee ba am cofeel ci suñu diggante ak suñu borom yàlla dafa dogal mu jaarale ko ci jëmm ji mu ñëw ci ñun. lenn lu ci nekk doomu aadama am na lu ko koy bëggloo moom mooy suñu dund ci suñu borom. mooy ci sunu bunt ci Seydina Muhammad mooy sunu bunt ci Sëñ Tuubaa mm-hmm. waaw kon ñun ñi nga xam ne ay ndaw la liñ ciy gën di soññewaat nañ fexe di moytu mm-hmm. bu ñëwee ci jotaayu ku tedd gi maanaam di fa jëf-jëfi nu ñuy xeebe mm-hmm. wala ñu fay wax waxi nu ñuy xeebe wala ñu fay nekk nekkin bu ñuy xeebe képp koo xamante ne si ne ab Baay Faal la war naa rusale boppam loolu war naa jombale boppam loolu parce que d'accord sax ñu ñëpp ay doomu aadama la yàlla tey moom moom àjjana moom moom safaraam moo moom am amam mooy xool ku ko neex mu ñàkkal ko kon tey ñun doomu aadama kenn amul droit di sikkal sax moroomu doomu aadama mm-hmm. waaye dafay rafet rek ñuy soññant suñu mm-hmm. mm-hmm. waaw euh, tey li wolof di wax rek du jóg rek dañ ni Baay Faal nàngam mais peñu guro boo dem di fa gis sànkar peñu guro boo dem di nga fa gis sànkar boo ñëwee ci yoonu alaaju Maalik mag ak ndaw loo xam ne la lam fa nekk Alaaji Malick sant ko. boo ñëwee ci sëñ Touba ci maam Cheikh Ibra Fall naka noonu. Mm-hmm. bu ñu demee tamit ci sunu mbokk taalibe yi muy ibaadu yeeg yooyu. Mm-hmm. am na ñoo xamante ne tànk fañ ko teg duñ na ñoo xamante ne si ne la yoonu bëgg doxuñu. Mm-hmm. waaw kon it loolu di ci bàyyiloo xel nit ñi waaye tamit di gën a soññaat mbokk taalibe yi waaw ñu xam ne yoon wi yoonu ngëneel la. yoon yoonu tawféex la. dëgg la ñun ñoo war a sagal sëriñ bi. Mm-hmm. ñoo ko war a dimbali. ndax ku tedd ki li mu wax sunu borom mos la oyofal jaamu yàlla. Mm-hmm. kon du ko mos a mm-hmm. lépp loo xamante ni ay sartu sa diggante ak sa borom ko doxee ba mu mën. xamante si ne bokkul ci jaamu yàlla ku ko ci dugal mënu muusa ko waane ba mu bokk ci loolu. kon ñun ñi nga xam ne ay ndaw la dëgmal sëriñ bi lu baax la ñu jàngal. kon nanu fexe di roy ci loolu. man benn projet boobu laa am benn projet boobu. Mm-hmm. mooy sama lépp am na solo sël mm-hmm. amaatuma leneen mm-hmm. te ñi nga xam ne ay ndaw lañ ci tënku ci biir liggéey bi ñuy fexe bu baax di wormaal seen woy jur yi mm. dimbali leen dimbali seen bopp ndax dëgg da neex léeg-léeg da nga wax jamono tor ci jamono joo xam ne boo waxee dëgg sax. Mm-hmm. ñoo lay njëkk mere ci loolu. ndax da doon rafet ñenn melokaanu exemple rek xam nga melo yu bari na. Mm-hmm. nga ni Baye Fall ñu lay fekk jotaay bu ñëw. Mm-hmm. yow bu la fekkee ci jotaay yaa ngi yor lu ñuy tere. wala yaa ngi jëf jëfin waaw. sëriñ bi doxul loolu. waaw Cheikh doxul. naanu. Sëriñ Tuubaa doxul naanu. képp kuñ ci topp. suñu sa liggéey bi nga liggéeyal euh, sa borom ak liggéey bi nga liggéeyal Seydina Muhammad cofeel boobu lan am moo tax ñu topp leen mu doon suñu bunt ci ñoom. Hmm. waaw kon ci yoon boobu ñu ñuy teg ba léegi nii ñun nañ fexe bu baax di góor ci loolu. parce que jamono ji dafa yàqu fu ñu toll nii. Hmm. tey mënoo xàmmee ñi nga xam ne ay Baay Faal lan ak ay wëyu hmm. surtout loolu nañ ci bàyyi xel bu baax. waaw xam nga ñun ñëpp ay doomu aadama lan waaye dañuy waxante li fi ne. gaa yi noonu suturaal sëriñ bi suturaal yoon mm-hmm. képp koo xam ne dafa dox ci safaan bu sëriñ bi buggul kooku ay mbiri boppam la mm-hmm. dañuy fexe di à chaque fois di bañ a jël loolu naan ñii nii lañ mel mm-hmm. képp ku fi indi sa melokaan boobu sa melokaanu bopp gis nga léeg-léeg di nga dugg ci kër gis euh, bàyyi jur juróomi doom nga xool juróomi doom yëpp moom ci deretam la kenn ku ci nekk nam bëgg mu mel ko melu ko te sañ te bedd kenn kenn ku ci nekk yar ba mu bëgg ba ba nga bëgg kii dana ko mel kii mel ko kii mel ko kii xaw a tane kii du ko mel. Mm-hmm. te munoo tee mooy sa doom. Mm-hmm. dëgg kon li nga xam ne mooy waajur yi war na ko ci digganteem ak doomam def na ko waaye léeg-léeg ci sikk-sikku nit ñi la. léeg-léeg li damay bëgg ñu ciy bàyyi xel mooy askan wi. Mm-hmm. di ci bàyyi xel bu baax. ku gis koo xam ne tey mu ngi ci yoon yi doxeelu fu dul foofu bu mu ne mbokk taalibe wala bàyyi faale defat na nàngam. kooku nit kooku jëf nàngam moo jël engagement am def ko waa def ko. loolu rek mooy projet bi amul leneen. Mm-hmm. amul leneen. amul leneen loo xamante ne mën nañ ko jël. rafet na ñu daal lay bàyyi nga daal tàggatoo. et su ñu bàyyi la nga tàggatoo comme que da nga am programme. waaw taw feex rek ñu ngi jaar <laughs> mbokki askan wi yëpp. di leen mm-hmm. baalu ak ñoom ci weeru tëdd bi eh, di leen baal ak li may tàggatoo nag. xaw mm-hmm. ma kañ ku baax ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul nga xam ne lépp moom it yenent bi la bañ na ko ba ci xasidaam bi amul wet gu mënul tàgg bi boo déggee mu naan ka antal karim mu anal xadimu dëxëran uddi mu fii ka sanaa yi comme que loolu moom moo koy defal ki gën ci mbindeef yi kon ñun li ñu war mooy fu ñu toll di delloo ku baax ki njukkal waaw fi may tëje nag mooy xadd xaala muusa xaadimul xadiimi li man xawaata xaadumal xadiimi yasaa ili an sababi taxsiimi yowmal xorooji seyxunal xadiimi min daarihi tut xa bi mbàkke بإذن خالق البراء يا باري خرجت يوم السبت الثامن العشر لخدمة المختار في شهر سفر taarix ba mooy junne ki ñetti téeméer ak fukki at ak ñetti lim bi lee woor Mame ne su ngeen ma dégloo tey ma dellu yeete ndax ñi nelaw seen xol yi dellu seeti ku réere mbir day laaj xam lu mu xamul laaj leen mbiram ki leen xamal lu kenn xamul gumba yi njàccaar laa ngi te ngeen ni weddam man ku xamul laajul kooku xaw maw ku toppatul yàlla na toppi waayam mbaalu ko dal bu mu ko xul folaayam nan jéema topp yàlla te topp ndigalam te jéema daw seytaane xàmmey ndugalam te jéema roy roylu rijaalulaahi te jéema roy lu kulli jaanilaahi alxayru fil maxtaaru xul maxtaaru la fi lazi nafusakum taxtaaru xat jaa akum minal ilaahi nuuru bamba jagoo kurwaa lasin danooru bamba ji xaat ak noonu yàlla ya jëxran fil baxri wal bari wanaa la daxran seytaane baneex ak bakkan ak duniya ku leen fetal daaneel nga noon yu bon ya bamba ji ak ñoom ji xaatu nafsi boobee sëriñ sànkonaan fil xab si xataltu fil baxri la wax seytaane kap ko boxoo xayrul wara awtaane noobul bu engagé ba xeex ca guerre ba niroowul ak siwil keroog payoor ba waman yu xaajiri fi sabilillaahi mbut maa ko yóbbu foofa doona laaxi déglul ma wax la la waral màggal ga nga xam ni Cheikh Bamba demam gi mu ne taarix ba a ma jay sasin mooy at ma mu di la sëriñ ba siiru mbég ma ne la yàlla defaloon kalima fi dëxri hii defal ko Ibrahima ba yàlla buur bi faratal tabaski ak tamxarit may ko gaayi mbàkke bi xidmatil xadimi lil maxdumi fil bëxri farlu leen ilaa taxsimi la daam wesar ca mbooti yoonu géej ga la bëgg a wax nga xam ne bàmbaay géej ga mam musaaka ne boo ko xamul yëral jaza u sàkkoor jawaabi abdullahi loolu moo wóor mu ne bu dul demuk sëriñ tuubaa gi wolof nasaraanu te kon billaahi ñépp dem nii raani ngir boobu doomi soxna yaa ngi kaanu di daggu seefi buur yi far nasaraanu ñoo jaxasoo kàngam yi ak nasaraan yi ñii di defi xaadi ñii di ànd ak naar yi doomi soxna dal di sampi daara te ndongo ya ak jigéen ñi mel ne saara siree mu ànd ak saara yendu caawo ndaw jaxasoo bamba rafet ak caawo sëriñ si ànd ak buur yi faf di daani ñii di tux ñii di fóon ñii di doxaani ñii di wajjulu ñi lay bandaañi ñi li tëri yaaxi ñi wañaani góor ñeeg jigéen ñi jaxasoo di caaxaan lamb ya gor sabar yépp jaaxaan kenn amatul xasdun li waj yi laaxi kànga nga ki foor faf di ñaan lillaahi lislaam di jooy yëkkat ba génn gàddaay ci soowu jant fépp mel ni làmbaay Seex Bamba dal di ñaan ci barkeb jiili ma nga yàlla maay safiiru kulli jiili may xaadimu rasuulu fi sodaani may rammu xarnu bi ani niiraani bur yàlla dal di siñe jox yonen ba mu siñe gaaña dal di jiital Bamba lisaanu xaal dal di waxanteeg Seex Bamba ci saaru yuusufa mu teeñu yan ba Cheikh Bamba naan may na ma dalab lislaam sëf leen ma jóor leen ma danaa ko jaamu keroog la ñaan bur yàlla yoonu géej ngir liggéeyal Moustapha may géej ga ngir boobu buur yaa ngi koy xëccoo ak sëriñ si kàngaam yi ak tubaab yi naan ko merci àdduna ak àllaaxira far ko giroo ku ne na maa koy jël ne man sama goro ba xaatimam jaxate naan ko irkan jëngal te jublu buntu buur yi cey kon seex bamba naan ko asbiyal ilaahu daxran wala ilaaha illallah maa ngi jégalu ci guddal bi de <laughs> ma nga naan ko yàlla doy na ma te doyloo naa ko maaxin dëkkum yan faddu jàng naa ko sëriñ Tuuba ma nga naan billaahi man alal du tax ma jéng jàngal ma saaru xut nekkoon doo jéng mu ne billaahi taalaa xanaa xalamoo laa tarkanoo inna lazina zalamu xalu li yarkan mooy jawaabi xaadi bamba ko tontu woon wa anta xaadi keroog la seex bamba giñ ba naan billaahi tey fase naa àdduna jublu laaxi nang nu defal nurun ala noreyni bi barakati cheikhi ahmadul xadimi di ñaanal sama wasila sama xarit sama soppe Cheikh Moustapha mu sëriñ Abdou Sakkour mu maam Cheikh Ibra Fall sunu borom kàttanal ko te yàggal ko fi ba yéene gi mu am liggéeyal ko Cheikh Ibra ak Sëriñ ci yoonu yàlla bi yëpp sunu borom defal ko ci lu kawe njortam di baalu àq sama kilifa yi toog Mhm. muy oustaz di ko béggee bu baax di ko ñaanal moom it moom suñu lépp la heure bu ñu xëyee di ko gis suñu wet. dëgg ah, moom sax xam naa mën na ma sax bañ a bu baax. Mhm. waaye léeg-léeg ma fekk euh, ci kër benn wëllëreem di léppam di mbokkam di xaritam di lépp muy kër baay baaba Thiam. Mhm. moo ak sama waajur ñoo fay toog ba Baye Cheikh moom dina ko xam bu baax. nga xam ne xamewuñ ko lenn moom it lu dul ci li nga xam ne mooy jëriñ ndaw ñi. Mm. moom it ñu ngi koy ñaanal suñu borom kàttanal ko ba. liggéey mm. bi fi mu ci bëgg mu àgg suñu borom eggaleel ko fa. Mm. di ñaanal tamit suñu xarit Baye Serigne moom yàlla wéral loxo bi. waaw di ñaan suñu borom mu kàttanal ko moom it ba fi mu bëgg a àggale liggéey bi muy tailleur bi suñu borom defal ko ci lu kawe njortam. di leen bëggee yéen tamit sunu sunu ngaar yi mhm. moom it kenn amul fayam moom it buñ dee wax ci moom duñ fi jog mhm. ak waa leeral tv yëpp mhm. soxna si yow fàttewuñ la benn yoon di ñaan sunu boroom def fi tawféex ak taysiir kon ñu ngi jéggalu mbokk yi àdduna bi yëpp di baalu ñëpp àq ci kàddu yi lépp lu fi dëng rek moo xam lu ñu fi tey la ak lu ñu fi teyul ñu jéggal na ko xam ne tollul waaye doomu aadama moo demee noonu ñu ngi jégalu ñëpp yow di la gërëm bu baax a baax ci invitation bi nga xam ne nangul ngeen ko xad na loolu mais tamit teewul nangul nga ñu seen sëriñ sànq ma dégg la say biir wax nga ni nga ni nga ni nga ma dégg la say biir wax nga ni nga ni euh, bi te dafa xaw a demee benn boor di tonton garde ba ñu dégg maanaam jamono ji moo cher fekkee tusi dafa cher yow yow yow yow yow tëyeer bi nga ñëw cheral ko ba mu cher est-ce que dana amati fit di ñëw waaw loolu aussi moom dañuy sawar di ci gën a waxaat rek mm-hmm. di xool ne ñun dafa am système bu ñuy liggéey xam ma modd da ngay ànd ak moom dem. tey ñun liggéeyatu liggéey bu ñuy xaare kii ñoo ñawlu si. ndax jamono moo développé kii moment bi muy am xaalis mën na fekk du am temps buñ ko liggéeyale mais ñun dañuy prévoir loolu. tey jii ku jógoon ñëw ci ñun mën nañ la jox loo sol nga dem sa yoon léegi bu nuy xaar yaw nga pare mu des deux jours nga bëgg a jënditi si ñëw ci ñun te ñun amuñu temps bu buñ ko ñëwee ñun dañ lay prévoir avant. tamit métier bi dafa toll foofu ma ciy ñaax suñu mbokk tey xay na du ñëpp ko man mais sabablu day am foofu rek. Mhm. am na looy liggéey rek da nga koy bëgg te def sabablu. Mhm. ngay sóoraale kii ñëw ak kii bëgg ñëw ak kii ñëwagul. Mhm. boo dee def loolu rek ñaw bi tey lu mu sooxe sooxe yow mën nga ko bañ a yëg. ndax xaarante daal àdduna bi moo xaaranteetul. yow tey li nga am yëpp nii tey ñawoon nga ba tabaski jàll wala korite jàll. nga am tey loo xam ne liggéey nga ko mi ngi sa poos boo bëggee mu juralaatal la da ngay mel ne kii bay nawetam rek mm-hmm. suul mm-hmm. da ngay xaaraat nga jëlaat loolu xoolaat neneen noo ci mën a liggéeyee mu gën a ñoŋ mm-hmm. bu ko defee loolu noonu bu féetee boor di yow mën na bañ a féete boor sa côté mais mais mais comme ni ni may déggee client yi di ko waxee muy man ni sama morom ñu ñu ñu ñu téere dañoo xaw a cheral de trop Euh, ñaw yi ce que sëriñ ci téer yooyu la bokk. waaw léegi de ku nekk moom mën na xool gis-gisam rek mais tamit ku ne da koy xoolee la ngay liggéey tamit ci nga mën a jàppale ñëpp. Mhm. tey mën nga ñëw ne kii war nga ko mën a fayu nga fayu ko. Mhm. kii war nga ko mën a may nga may ko kii tamit ñëw na nga xool dooleem fi mu toll. Mhm. nga liggéey ak moom ci fi mu toll ku nekk daal la nga am moom ngay duggee marché. tey tamit yow man nga xool ne wax bi nga war a jënd da ngay jënd wax bi nga ñawlu ko. mais boo bëggee ne wax laa mën a jënd nga dem jënd jasneer bëgg fay loolu tamit mën na doubler loo xam ne mënoon na yoraale ñaari nit ñetti nit. Mhm. xam nga loolu tamit day joué ci société bi nit dafa defatul li man. te def loo man wax loo man boo tëddee da ngay nelaw. man loolu tamit dañoo lu rëy moo koy indi nag tey mhm. ànd naag soxna si awa moom tey jënd na jënd na vax am. Mhm. man tey waruma woon a jënd vax. li nga ànd ak moom moo tax tey la nga doon jëndi doo ko def ndax da ngeen di nëbbonte. tey feeñ na rek ñëw nañ ci borom tisi bi jaay ma. jasneer yow fekk yow woon loolu nga ne ko yow it may jaay ma jasneer te mhm. fekk yow mënoo ko sax mhm. boo paree ñëw ne tey ñawlu ñaw bu ne am na prime boo amee 10 000 man ngaa lu boo amee 5 mil mën ngaa ñawlu mhm. mais tamit lépp day fekk ci xalaat yi ak bopp yi li mu attan rek nga teg ko ci mais benn ñaw seeru sëriñ boo ko ci téere yi nga xam day téye ñaw ah loolu de moom mënul ñàkk ci téye da ngay xool tamit client bi baa tamit heure ba mu indi ñaw ba tamit la nga waxante woon ak moom am na ndax tamit tailleur moom boo ko teelee ndey ñawam rek da ngay teel a pare. Mhm. mais tamit da nga pare tey ne tey ñaar fukki nit yi laa mën a ñawal. Mhm. mais tey benn ngaari jóge fee xaritu sëriñ la mën a jox doomam ne ko yóbbul ma ñaw bi foofu. Mhm. léegi ñaw boobu bu tardé tamit doo xam nan ngay def. waaye tamit da ngay obligé forcer rek ba dugal loo mënul mais tamit man nga jël sa. sa initiative boo xamante ne si tey man nga xool nan ngay liggéeyee. Mhm. yow tey sa xel lii la attan bopp du yanu mais xam na tamit lu mu attan. waaw léegi loolu aussi tamit da nga ciy bàyyi xel que ne. Mhm. tey jii lii war a defee damay def bokkul boo loo gis nag saako dana fees rokkas dina ci am. Mhm. ndax tamit lu mënul ñàkk rek mënul ñàkk ñu ñëpp dañuy jéem compréhension day dem ci client bi. compréhension day dem ci tailleur man mi la comprendre ba jël sa ñëw. au dernier moment yow tamit da may comprendre rek may it bu paree mën naa ñëw sax indil la ko. Mhm. ndax ñun bëriwul lu ñuy tardeel ñëw ndax. nii nii bu doon suba la mën nañ laa jox sa ñëw boo ko indee léegi mën nañ la wax bu ñu la wax xasee wax bis rek dañuy def la tout pour mu ñëw. xëy na nag loolu ci ñiy doog a door mais ñun ñi dem ba yàgg ci xam nañ système bi ñuy liggéey ak nit ñi. ñàkk nag tolof tolof am. Mhm. bi début bi mais lu la dar ren da nga koy jéem déwén mu bañ la dal. rectifié ko déwén incha allah ah projet yi de mën nañ wax nañ ndaw ñi la ñuy wax may ñun suñu projet yàlla def na def nañ ci liñ man mm-hmm. tey bu ñuy xàll yoon dañuy wax na tey xale yi leen bëgg a xàllal yoon mm-hmm. ndax gis nañ sëriñ xamuñu fu mu doore fii la toll rek ñu bëgg a tëb àgg ci moom mm-hmm. ndax loolu tamit day xaw a metti da ngay ramper pour mën a agsi ci yenn yi lii laa am lii laa tollool jàng métier da nga koy jàng fa mu jote tey boo demee ba jàng ba mu leen na mënatoo jàng da nga war a jóg nga dem jàng métier ñun métier boobu la ñuy bëgg ndaw si ndaw gi nga xam ne ñëw na école ba rejeté na comme li ma waxoon sànq CM2 lañ ko dàqee yaayam da koy woo wala papaam loo bëgg a def bàyyi ko xelam. Mm-hmm. léegi gis na sëriñ fi mu toll day bëgg ne xaaral ma def tey ndax sëriñ léegi bu ñëwee yow yaa koy wëlbati ñaax ko nag jéem ko teg ci. ordre bi nga nekk. Mm-hmm. ci kaw paaraam jàppale la ci ordre bi nga koy teg. Mm-hmm. ndax tey danga yor xale nga dem ak moom ñaari at jubbante ko mu commencé mos ñeenti téeméer ñi juróomi téeméer yaayam. teggi na tam jëndal ko machine ne kaay toog fii. war mën a liggéey. doxalul as ndaw mhm. da ngay dem léegi da ngay ñëwaat léegi ndax ñun métier bi dafa fiir dañ lay xaar rek mhm. boo yàkkamtere da ngay yàqule da nga koy galleeru muñ ko tarbiyu ko mhm. nga jàng ndax jàng léegi dafa dafa développé jàngu métier ñun ban ko doon defee da ngay ñëw fii nga jàng kat tubéy bii rek laa mën a ñëw ma la waxee man damay am juróomi patron ba juróom benn juróom-ñett léegi man mën naa ñëw juróom-ñett yooyu ma sol ko ci benn xale ndax man ba may jàng arab laa jóge rek dem jàng dem dem nekk téyër tarbuyu ci benn patron yi jàng fa yére jigéen jóge fii jàng fa yére góor jóge mm. fii jàng fa pantalon caaya tey téer yu bari ba leen joxoon caaya du la rasa ceinture ndax développement moo indi loolu xale bi nag bu xaarul loolu rek bu ubbee atelier am da ngay gis day très nga gis koo xam ne da koy jox yére jigéen rek lay taxaw. Mm-hmm. nga jox ko yére góor du la ko ñawal nga jox ko pantalon du la ko ñawal. Mm-hmm. styliste ak ak tailleur dafa amul dafa wuute lu bari. ban ngaari mën na nekk styliste ngaari mii mën na nekk styliste. Mm-hmm. ban ban créateur ban différence lan am. différence mooy tailleur bi yow tey man maay dagg di la jox ngay ñëw rek. yow musoo laal ciseau man sama atelier tey daggal naa ñu bari jox la ñu liggéey. Ah, mais tey ku ci génn doo dagg. ndax yow dagg yow dan lay daggal. formé la loolu mooy indi ñu naan dañuy def tey formation lan war am kan moo mhm. bëgg a ñëw ñu ne coupeur bi day ñëw taxaw mhm. dajale vingt cinq élèves li nga dessin ci miir bi nii ña nga dajale ñëpp duñ ko dagg loolu mooy créateur day am styliste mhm. modéliste ngaar yi mën na ñëw nekk styliste xelam la xalaat na lii war nañ ko dessin war nañ ko dagg da lay jox xelam wax la ko mais mënu ko def styliste ak créateur bokkul ak ki nga xam ne tailleur la day ñëw rek kii ñëw moom tailleur kese la dëgg moom day ñëw ñëwal la grand mbubu grand mbubu la man foofu ngeen toll comme usines yi ni ñuy ñëwee Europe. Mhm. benn pantalon bi fukki tailleur koy ñëw. damay ñëw jox kii mu takkale poignée ma jox kii mu defar kol ma jox ke mu tapp bouton yére bi fii lay commencé mais fële lay terminé ñun nag Sénégal yàlla may na ñu benn tubéy ma nit taxaw dagg ko ñëw ko sa kanam. day jaaxal ki nga xam ne dafa taxaw di la seetaan mais mhm. loolu yëpp jàng mi da ciy am. Mhm. ak bëgg-bëgg bi. ak nangoo yàgg fi ngay tarbiyoo mhm. léegi kenn jàngatul ñaari ñaari tabaski koo ko téye beneen tabaski mu ne wuti xaalis parce que daa am ñoo xam ne danañ ñëw ba bàyyi embauchement rek la ñuy liggéey mhm. man maa nga embauché naa ñu bëri ñoo da nga leen di fay ñu jóge Dakar liggéey si mais ñoo la mag mais ci liñ jànge ci loolu rek la ñuy dem mais da nga war a ñëw créer société mhm. tey booy xool projet da ngay ñëw ne dama bëgg complexe école nga jël fii yëpp def ko école dugal fa machine yu bëri comme ni ñuy jàngee école nga wut ay blouse former leen ci loolu ku ci mm. génn day jël atelier mu dem te loolu moom mooy moom mooy projet yoo xam ne tey day da lay dimbale yow mm-hmm. boo jógee ci man nga am ci loo jàpp mën a dimbale sa bopp mën a formé waat yeneen jeunesse boo xamante ne si mm-hmm. yow lañ jóge du école bi rek moo war a joxe diplôme ñun dañu war a am exemple boo xam ne dañ ko war a joxe ci xale yi ñu génn mën a yor seen ndey yor seen baay mën a yor lépp loo xam ne ci métier la koy joxe rek yow métier mi dafa la war a may lool te ñun tamit mën nañu wax ne lépp cinquante personne jóge na ci ñun defaru kon ñun société la ñuy defar liggéeyal sa dëkk moo gën sa dëkk liggéeyal la. dëgg la dañuy suñu benn roq di liggéey mais am na ñuy génn di prouver di génn di développer te foofu lan génne dëgg école bi am na cp CP2 c loolu yëpp da nga koy am ci métier bi. parce que tey métier yi boo dajale woon sans kenn bokk jég sa morom lu muy def. Mhm. boo ci tuddee Louga yëpp mën nga tudd ñett téyeer bu la mën a defal li nga bëgg te ñun ñëpp xamante ne suñu biir. dëgg la tey bu sama ñaw seeree dix mille ngaar yi mën na la ñawal cinq mille. Mhm. mais après boo leen solee est ce que différence bi du génn. dëgg la de waaw lool mooy waral seer ñaw ak bañ a seer ñaw. Mhm. mais qualité la ñuy bëgg ñun. nga ñaw ñaw mu am finition nga kub ko fa nga ko war a kubee. ñaw ko fa nga ko war a jàngee. aussi tamit loolu daf ci am parce que bu njëkk da ngay gis ku jógee Côte d'Ivoire Taïbaas rek lay ñëw amul leneen. dëgg la Taïbaas kese. Mhm. Côte d'Ivoire lay jógee yow da ngay dem pour jël ci kooku deux ans ñëw nga gis koo xam ne tey costume la lay ñawal comme costume bi ni ñëw Europe mën nga ko ñëw ëlbati ko gis lépp. Mhm. tey koo ne kii Sénégalais moo ko ñëw. nga weddi ko. Mhm. nga am stage Europe ay Moodu ñëw fi ay ay ay tubaab. dañuy ñëw indi seen échantillon robe bii dañ ko jënd Sara. yow au lieu que nga ñëw defar sa réew nga jël vaccin bi produiral ko rob bi mu toog xool la yow nga ñamal ko loolu ñun dañuy am ñoo xam dañuy ñëw ñu dem ak ñoom hôtel. Mhm. ñu ñëw 11 personnes 12 personnes nga ñëw jël ak ñoom benn un mois jëndal ñëpp tiisi moment boobu ñëpp dañuy sol vax. ngaari xam na li may wax ci côté boobu. Mhm. tubaab yi dañuy bëgg a ñëw sol li sénégalais bi di ñëw. Mhm. après ñu ñëw suivre la photo la ngay ñëw ñu ànd ak yow jëndi ànd ak yow photo ànd ak yow ñooñ dañ lay invité sax nga dem défilé ji ak ñoom parce que li ñuy gis fii gisuñu ko Europe. Mhm. loolu aussi tamit xale yi dañ ci war a bàyyi xel ci styliste boobu ñuy ñuy créer créateur bi di ci joué waale. Mhm. ñu am ay défilé de mode ngay xam. léegi tailleur bu ndaw bi dafa war a ñëw développé ci loolu yëpp loolu nag benn deux ans mënu la ko may benn un an mënu la ko may aussi. il faut nga xuslu bu baax a baax il faut nga def lépp ba pare sa famille bàyyi la ci. Mhm. nga mën a bañ a gañ xaalis nga gañ a ñëw. boo teelee gañ a xaalis doo gañ a ñëw. te bañ cee séntu xaalis parce que jeunes yi dañoo gis ne léegi képp ku nekk liggéey bi ngay def gis jéemoo jéemoo xool métier bi ne mais yaa ngi visé xaalis bi nga xam ne moom nga ci ba tax bi ñëw na mhm. dama war a am mille par force léegi yow nan ko war boo ñëwee liggéeyal ma tuuti nga daw dem ci ki liggéeyal ko tuuti daw dem ci kii boo waree veillé nga concentré wu bañ a xalaat loolu ndax xam nga ne fii bu ma fi toogee du ma fa am 100000. mais damay génn pour wuti 100000 léegi loolu ngay tàmm nag daw cap-cap boobu ngay tàmm. Mm-hmm. moo lay yàqal que yow doo mos a yor société doo mos a mm-hmm. yore atelier. dafa am groupe buy taxawaalu ci tailleur boo xamante ne si amul kenn koo xam ne chef d' atelier ngay doon. atelier boo gis mën na am 20 personnes mais kenn mooy chef. Mm-hmm. tey mën nga amoo embauché 10 personnes. 10 <coughs> personnes yi. dañuy ñëw comme jour nawetaan da ngay am benn tailleur soxla ko Dakar nga woo ko mu ñëw man bërki dem na sama tailleur ñibbi na ci fajar bi dakaar la jóge ñëw mhm. sama kër lay nekk man lay liggéeyal te pourtant moom Dakar la jóge ñëw fii mhm. léegi loolu mu def fii ëllëg day dem mu dem xooli leneen mën na dem Touba mën na dem feneen boo gisee Dakar ña fay ñëw ñëpp koo ci tudd du la daggal du la ñëwal. dégg la de. benn tour ngay dégg mu jël benn appartement am def fa vingt tailleur. Mhm. ñëpp boo bu nee tey la nii ñëpp jël na oto ñibbi si ñii ngi Louga. Mhm. ñii ngi Touba. Mhm. tailleuru Dakar kenn dëkkul foofu. dëgg la te koo gis Louga mi ngi naan Dakar lay ñëw loo di di day di am succès bu rëy lay bëgg foofu. bu demee dakaar fay cinquante mille bu ñëwee fii ne du fay dix te boo leen solee taxaw ki ñëw loo Louga moo lay dàq. mooy dàqale. te loolu aussi tamit suñu autorités yi dañ ci war a bàyyi xel ci côté boobu. ñu investir seen dëkk toog seen dëkk di liggéeyuloo seen dëkk. Mm-hmm. mais bëgg a dugg dëkk ci dëkk bi ba pare di yokk beneen koom-koomu beneen dëkk loolu aussi développé wul Louga. day fay sa ah, dëkk loolu day fay sa dëkk te nga yow sama dëkk laa am. Mm-hmm. maa ngi sama lépp Dakar laa koy defee. ku nekk la fa nga am foofu ngay ndamoo. waaw ah, loolu aussi day sooxe affaire bi. Mm-hmm. Imaam ñu daal bàyyi nga tàggatoo. waaw euh, soxna Awa maa ngi daam daam daam koy ziare bu baax. Mhm. xam naa rek dinaa def benn tënk li doon xasida yi mu doon wax yëpp boo ko dee tënk. man hmm. ngaa rocc ci benn bayit ci biir boo xam ne sëñ bi daf wax ne alxayru fi maxtaarul muxtaar. Hmm. yiw daal mooy mi ngi nekk ci li nga xam ne ñu tànn kee ko tànn. Hmm. Seydina Muhammad. nekkul ci li nga xam ne seeni bakkan a ko tànn. yiw. ki ñu tànn li mu tànn ci yiw la nekk mhm. waaye li seen bakkan yiw nekku ci mhm. mu mel ni lim doon wax lépp bay boobu ci bunt yi boo ko diggil boo ko jukkee mhm. day tekki li mu doon wax lépp euh, mooy waayu sëñ Moussa su ko defee kon euh, pour tàggoo rek damay wax ni ñu ngi jub korité ñun ñëpp kenn ku nekk na jéggalu boroomam jéggalu moroomam ñun ñëpp kenn ku ci nekk na baal mhm. mhm. mhm. ak mbokkam te bu mu ko deseel dara na baal ak mbokkam te bu mu ko deseel dara réew mi nga xam ni suñu réew la mënuñu ko génn di dem feneen nañu jàpp ne suñu réew mi aussi nañ ko ñaanal ñaanal suñ bopp ne mbax na ñaanal réew mi aussi kilifa yi nga xamante ne yàlla dafa dogal ñu nekk ay kilifa diine ak ay nitu diine jànkatu alxuraan yi nañu ñaanal réew bu baax a baax a mm-hmm. baax mais nañ ñaanal réew bu baax a baax mais aussi nañu gën a góorgóorlu bu baax yonent bi alayhi salaatu wasalaam pour fàttali mm-hmm. dafa wax ni képp ko woor weeru koor teg ca juróom benni fan dafa mel ni woor nga jamono bépp léegi nag juróom benni fan yooyu yaa xam noo koy woore ci biir weer yi bu la neexee par ñaar mm-hmm. woor ñaar noppalu woor yeneen ñaar noppalu woor yeneen ñaar noppalu bu la neexee nga juróom-benn fan yi nekk ci biir weeru korite loolu aussi ñu ngi koy fàttali pour képp ku ñuy dégg. Mm-hmm. soo ko wooree tuyaaba ji ngay am ñu bokk ko ak yow. Mm-hmm. su ko defee kon pour tàggatoo xam naa ni damay wax rek ni yal na yàlla subhaanahu wa suñu mbokk ngaari yal na ko yàlla jëmale. amiin amiin ñu bokk amiin mbokk yi itam. Ah, sëriñ yal na ko yàlla jëmale kanam. suñu mbokk aussi ki nga xam ni moom mooy. Diop eh, yàlla na yàlla defal kanam. amiin amiin yaa rabbi. waaye itam du ma daaneel te waxuma ne comme ngaari nee na xaritu Macky Sall la. <laughs> xaritu Macky Sall en tant que président. Ah. di ñaanal aussi ñi koy jàppale. di nuyu suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi te koy jàppale. Mm. di ci tudd soxna Thioro Ndiaye Diop. Mm. di ci tudd soxna Aminata Mbengue. Mm. Moustapha Diop. monsieur Djililo ak keneen ak keneen. danañ tudd ñenn. ñeneen ñi déggee ci seen bopp ñoom tam. Hmm. su ko defee ñeneen ñi nga xam ne ñoom itam dañuy opposé. Hmm. ñoom tam ñu ngi leen di ñaanal yàlla. Hmm. te di leen wax ne nag ñi nga xam ne dañoo diriger rikkuwaay bu ñu tox toxal ak di toroxal ñi nga xamante ni dañoo opposé. ne ñi opposé itam nañu xam ne nañu opposé ci yam ci waaye bu ñu def lu leen neex. parce que am réew def lu la neex lu am réew li ko yor mooy kenn ku nekk liggéey comme li nga xamante ni la war a liggéey mm-hmm. mm-hmm. ñëpp nag am na lu ma leen yéene waaye spécialement moom tam am na lu ma lu tax ma yéene ko ko mooy bokk na ci lu tax ma yéene ko ko mooy gis naa mu osé loo xam ne kenn osé gu ko mooy eh, bugguma tudd ay mais président de la république Macky Sall ak Ousmane Sonko kenn ku nekk muy wax ak yow mm-hmm. loolu kenn osé gu ko. ba tax na am na lu moo ko yéene. Mm. ñaareel bi moo leen mag. Mm. ah beneen lu ko waaye ma a waxal aussi am na lu mu def Thiès. waaw mm-hmm. oh, bien sûr waaw. Oh. léegi nag ku mel noonu aussi jar na ñaanal ko. Mm-hmm. parce que mën na am li ko fi yàlla bàyyee mën na am yàlla dafa bëgg. ku mel ne moom. yàlla jaarale ci moom jàmm. Mhm. te réew mi jàmm ak stabilité la. doon soxla su ko defee kon moom itam ñoo koy ñaanal mook ñi nga xamante ni ñoo koy jàppale. di ñaanal soxna Awa di ñaanal émission bi di wax ne yàlla na ñu yàlla defal ñu korite ci jàmm. E, te fekkee déwén te weesu ko. te yàlla subhaanahu wa yokk xéewal yi. seen mbokk seen xarit oustaz Cheikh Fall. Mhm. jiite benn collectif. bu ñuy wax collectif des prédicateurs pour la euh, pour la pour la paix et la mm. solidarité. Mm. collectif des prédicateurs islamiques pour la paix et la solidarité. ñu mu nekk fii ci dëkk bi euh, nekk bokk ci ay mbooloo yu bari itam di ñaan yàlla subhanahu wa taala suñu autorités yi nekk ci dëkk bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu. dañ ci tudd préfet suñu jigéen. Mm. tudd ci gouverneur tudd ci aussi imam yi nga xam ne ak sëriñ yi nga xam ne. ñu ngi nii dégg ñun ñëpp. yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp. yàlla nañu yàlla gugg suñu lépp. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ok jaajëfal bu baax a baax a baax tey di gërëm nga xam ne invitation bi nga xam ne nangul nga xam na mm. loolu mais tamit teewul nangul nga invitation bi mm. tey di la ñaanal suñu borom bàyyi la fi bu baax a nga ànd ak ñun di ñu gunge sëriñ daal lay bàyyi nga tàggatoo waaw comme ni ko Oustaz waxee rek. ñu tàggatoo di ñaanal ñëpp rek jàmm. ndax jàmm ci la lépp xaj. bu réew mu amul jàmm boo duggee ci gaal. doo ñaan gaal gi suux dangay ñaanal ñëpp jàmm rawatina ndaw ñi kilifa yi. ndax ñooñu bokk yilife ñun ñëpp nag mm. di ñaanal maire Moustapha Diop suñu doom mm. di suñu mbokk ku nekk tamit bu ñaan jotee da ngay ñaanal sa mbokk rek mu mucc te loolu la ñuy gën di ñaan comme ni mu ñaanal Idrissa mm-hmm. te la ñoom ñëpp benn parti bi la rek ndax ñoom mm-hmm. ñëpp ngaare li ñuy def nag moom nee na Macky la moom xaritu Macky la mais ah loolu mooy problème ah looloo tax nag léegi nag comme njaboot gi dafay ne xaritu Macky kay bis bu ko Macky invité après moom la ñuy jox président bi rek. Mm, ànd ak moom jàppale ko ndax ñun ñëpp loolu la ñuy jàppale. di ko soññ nag moom it mu gën a liggéey dëkk bi. Mm. te comme ni mu koy defee rek jàppale dëkk bi liggéeyal dëkk bi te mu ngi ci. Mm. boolewul dara ak wax lu ñu bëri day liggéey. te xool lu ko jëmale lu ko kanam rek lay bëgg. ndax moom xëy na yéex nañ cee jot. li ñuy wax nguur gi yéex nañ cee jot moom it lu ko yéex na cee jot. tamit dañ koy soññi wan ko ne nag defagul dara. ñu ngi taxaw di ko xaar ci dëkk bi jëm kanam. gën a jaar yoon bu xoolee ne nit ñi lii lan wax ànduñoo moom ci lan la muy def. mu mhm. teggi tànkam jéem a jaar beneen mhm. maslaal. Mhm. ndax jàmm ji rek lan bëgg Louga. bu amee jàmm ñëpp am jàmm. te mi ngi dox ci loolu di déglu ay conseillers mhm. pare nag di génn di ñëw ci dëkk bi di jege si nit ñi bu baax. loolu tamit manqué na ci moom lu bëree bëri. <coughs> Mhm. ndax tamit nit ki doo ko jege ba loo ko wax li fi nekk. Mhm. tey jii ñun politique luñ ko. suñu fee yaakaar. ñëpp dëgg jotee it dañuy wax ak moom. danañ déggante ak moom liñ war a wax ak moom dañ koy wax ak moom. li liñ gis ne manqué na ci mooy que ne mu ñëw ustaas yi mu jàppale leen. Mhm. te jàppale ba bàyyi sa wew tànk la da koy def ci Louga ba pare. doo mhm. génn nag jéegaani Dakar ak Thiès. boo déggee kii de wax Idrissa Thiès yaa tax na mu ko defaree mhm. mu naw ko ba bàyyi ko xel. loolu mu am Thiès nag lan bëgg ñu am ko ci suñu luga gii. gën a dem mi ngi defar nag mais dañoo bëgg mu dooleeku rek. te wan ko ne des dese na lu bëree bëri ndaw la rek day dem. ñu it nañ ko jàppale ku ko mën a jàppale pour mu liggéey ñu gën koo jàppale ci liggéey bi. di gërëm soxna yi sa kër ko <laughs> ña jàpp ca liggéey ba nekk ca place ba ma mën a toog fii di wax ak yéen ku ne xam na ne ñaari fan a des ci julli gi xam na trop mais nag dañuy bëgg a ñëw di gën waxtaan mhm. di gën a ñaax ndaw ñi di gën a wan ne leen tamit korite gi benn fan la jëru cee def loo mënul defee lu ëpp tamit bu ëllëgee nga taxawaat la nga war a añee suba ak gannaaw suba boo ko añee benn fan yi dëgg wutiwaat mm. kon nag ñun ñëpp nan delloo lépp ci yàlla rek mm. te xam ne yàlla moo dogaloon moo fi indi lépp moo fi indi koor gi moo fi indi koor dégg te mi ngi indi leneen ak leneen mm-hmm, mm-hmm. te saxal suñ bopp tamit ci jaamu yàlla gën koo delluwaat ci moom comme ne mm-hmm. oustaz yi di gën di tamit ki fi jóge woon moom lay tàggoo muy Khady Diop tey bu daan toll fii bu nekkul fii moo fay toog di liggéey ak ñun yàlla defoon na nag jóge woon na ci ñun ba beru te loolu lañ bëggoon ak moom comme ni doon formé ñeneen ñi noonu lañ ko formé loon ba muy liggéeyal boppam di yóbbu si yàlla nag lu gën rek lay <coughs> gën a ñaanal rek di ko gën di bëgg tamit way wu rafet la la am. koo gis tey ci téléphone ñett fan yi xam ne am na lu mu fi def. yàqu mm. fi yàqu fi mais am na leneen lu mu fi liggéey. di ñaan ñi mel ne moom it ñu jéem a def na moom dem liggéey ba leneen fekk leen ci rek. di kontaan ci émission bi leeral teg fii nag. Mm-hmm. di ñaan suñu mbokk ñëpp nag ñu nekk ci dëkk bi. ñëw wax seen xalaat parce que télé bi lool rek lay jëriñ. ubbil na ñëpp bunt yi mm-hmm. comme ni ma ko ubbilee. Mm-hmm. kontaan nañ trop ci invitation. ayca ci invitation bi nga xam ne nangul nangul nañu ko xam na loolu mais teewul yow bàyyi nga sa yitte ñëw ñu si ñu mm. waaw waaw di sant yàlla ñu ma ko waxee sant sama borom tabarakallahu euh, di sant oustaz Cheikh ci xam-xam bi ak woyof bi aussi saa boo ko woowee ci xam-xam rek mu ñëw te da ci wax loo xam kenn du ko dindi soo ko déglu aussi ci rajo Carrefour surtout mm-hmm. euh, da nga koy bàyyi xel parce que wax loo xam ni euh, kenn du ko dindi mm-hmm. te loolu la ñu soxla ci ci diine wax loo xam ne kenn du la corriger parce que loolu xam-xam la yàlla na ko yàlla defal jàmm defal ko njabootam bàyyi ko ñun parce que ñoom mënuñoo ñàkk ci suñu dund yàlla na yàlla taxawu leen sëriñ it di sama xarit nit ku baax nit ku woyof ku disponible su Ndakaar yi ku ñëw jëm ndaar sax dafa dama jaar loo ci sëriñ doo ko continuer mm-hmm. eh, te artiste ku leen mën a xajoo ko ne xol bu yaatu nga yor lakkale nanu bari nanu wax bëgg bari nañ bëgg-bëgg Euh, ni ñu koy wax sànq ni booy ñaw dafay dafay prévoir. Mhm. keroog bi may dem TFM la yëkkati jasneer bu rafet jox ma ma sol. waaw ma solul dem. waaw xam nga loolu euh, mhm. mooy li mu wax maanaam mhm. affaire professionnelle la. toujours da ngay teg. ku soxla bu ñëwee euh, wala mu ñëwoon nga ne ko li la ñu ni yoral dem. aussi muy former ay nit parce que man loolu taxul ma gën a bëgg invitation mooy nga wax. maa ngi forme ay nit. waaw tëgg xale yi pour que jël yoonu mbaax. ki nga xam tuxul naanul njublangul jàngal la métier boo defee loolu des na la yedd ah ki la jàngal ni melul ni nga mel nii ko defee nga nga am yaraa wàcc te xale yi aussi fépp may métier yëpp la gis ku ñaar benn at ubbi atelier moo xam mécanicien la moo xam soudeur la moo xam tailleur la di yàq liggéey ba ba nit ñi dootu ci sawar ci moom tekk ni métier da koy jàng ba mu ma korombox ba sa patron la kaay nag ma ber la parce que la ber dana ko boolee ki yëf ke jàng na la ba nga mokk wóor na la ba yóbbula at atelier boole ko ki machine bu ñawam bare mu xaaj la yóbbu la diw loolu ndamal ndamal ko jàng euh, liggéey la kon aussi sëriñ ñu ngi lay jaajëful baax ci taxawaay bi euh, wax dëgg yàlla xol bu yaatu la yor te it euh, yaru na dal na dal na ni ma ko wax sànq ci commencement madul nga ni sëtub Lat Joor laa bu direct nag wane ko nag am na ñu koy wane di waaw mais da nga ko doon ba noppi dox sa dox mhm. liggéey sa liggéey jàng tax am nga loo xam aussi ba ñu jàng alxuraan jàng alxuraan jàng si diine xam nga ko jàng métier yal na yàlla defal leen jàmm daal. Eh, aw aussi ni ma ko waxee sànq keroog maa ngi koy wax Babacar ñu gisee ci défilé bi dama kontaan c'est-à-dire ci ñun la bokk ma jàng mu nga am diplôme mais dama damay liggéey du ma xaar kenn. Babacar aussi ñu koy gërëm bu baax ci liggéey bi ni ko ay patron di gërëmee parce que mu ngi faire sur lu développé euh, li nga xam ni mooy liggéeyu leeral bi yal na ko yàlla defal jàmm fi ma tëj rek xaritu Macky Sall bi nga wax cest dire man duma ma contre état. Ah, avant ci Macky Sall bi nga gërëmee Babacar. Hmm. def def moo tax ñu pare na ko. waaw waaw pare na gis naa parrainage bi da nga ko liir léegi moom. Ah, waaw xam nga man duma ma contre état. Mm-hmm. damaa gëm ni état yàllaa koy fal. Mm-hmm. comme yàllaa koy fal palu yàlla moom du ma ci déngam. gis nga bu subaa bu yàlla defee Awa Diop président du Sénégal sa kër laa jëm jàppale la. parce que réew mi ma ñor man. léeg-léeg si sama gars yi bari nañu seen sama numéro téléphone dañu ko dindi de nee nañu comme damaa far ak Macky Sall ñoom comme ñu mu faruñoo moom mer nañu ñenn ñi neen def dama jox dara ma ne ma wutuma dara musuma ko bind lettre mais damaa gis muy liggéey te boole koog noppi di def ma jàppale ko ñoom ñëpp a baax nag eh, yàlla ko yàlla defal jàmm bu ko defalee jàmm defal na ko mm-hmm. ab këccoo imaam wax na ko dafa xajul ci réew mi yaa ma ni naag ñun ñëpp a bokk Idrissa Seck kenn ëpp ko xam-xam ci réew mi bu yàlla namoo ab toogaayam kenn mënu ko tee toog Ousmane sonk bu yàlla namoo ab toogaayam kenn mënu ko tee toog waaye lépp xaaral ba yàlla jox la décision bi parce que yàlla mooy fal su ma di courant Macky Sall dafa ñëw c'est un président par défaut daf may jaax yàlla amul du far par défaut yàlla du def par défaut moom moom jàmm di mooy joxe poste yi te Macky Sall bi mu jaar processus bi mu jaar nii loolu du par loolu mature dafa mat doo ko doon. kon it ni nga ko oustaz waxee euh, na yërëm te sañ a def sax jéggale. mais opposant bi wut buy tooñ. parce que boo tooñee di yuuxu du tey yar bi dal la. te it du baax. kon nag na ñëpp dal parce que réew mi jàmm moo fi rek yàlla ñu ko yàlla defal jàmm. ummi euh, nañ koor bisimilah rahmaani yàlla ñu ko yegg rek alhamdulilah rabbil alamin te it ma dellu baamtu ni ñi man nañu jàppale ñi munut. ki munul tegu ko boppam. ki man joxu ko boppam. kon ku nekk yal na ko yàlla jàppale sëriñ wax fu am solo muy le maire de la commune de Louga ab maire day jege ak njabootam ci ngay xam lépp boo sore doo xam te duñ la miin <clears throat> bu yuuxu jotee ñu yuuxu la parce que xamuñu la mais soo defee proche ci ñoom lu bari dana feeñ sa diggante ñoom kon na jege dëkk parce que dëkk bee ko jox ndombal tànk fi la juddoo jànge fi jàngewul feneen te ñu dooleel ñiy liggéey sëriñ wax na ko ci biir waxam. jëlal sax ay ñaw ñaw ay ñaw ca ndakaaru ni yóbbul leen ma ko sëriñ ca Louga da ko jox doole parce que du moom rek dafa koy jël ak ñeneen su caméra jotee nga ne wool ma Babacar mu ñëw Dakar caméra ma parce que doomu Louga la su conférence jotee nga joxal ma ko oustaz Cheikh ca centre mu defal ma ko parce que waa Louga koy a déglu su léegi beneen liggéey jotee nga ne ma Awa Diop mooy doomu dëkk ba parce que ngay dooleel sa dëkk parce que ñoo lay fal bu xeex jotee taxaw ñooy taxaw tem pour nga doon li nga war a doon bu ni maanu ngay wàcc élection yi dal na leen kat yi passé nii gars yi dañoo croisé la bara lu bari yàqu. parce que waa dëkk baa lay jox doole. soo leen néewale doole ñu war la gën bu lay woon ginnaaw ngay wàcc. kon nag lañu gën a góorgóorlu ci dëkk bi autorité yëpp. ñoom ñëpp ku ne wàlla wa waaye ne fekk ko ca. ñaanuñu seeni droit la. président Macky Sall na na gën a jéggale na gën a yaatal na gën a dimbale na gën a taxawu na gën a yër askan wi ngeen bàyyi xel tooñkat yëpp dañu bàyyi tooñ asgor kenn du ko tuumaal parce que man li may tëjee aw mooy bu nee justice amul Sénégal dina ma jaaxal. pourtant ñaata procès yi am àllarba ak alxamis. kenn yëgu ko waaye ngaar yi moom daa siiw tooñ ba ma tooñ Serigne Diop Serigne Diop ni ma du ma xeexee dama yóbbu police ñu ni pourquoi justice amul fi ndax damaa tooñ. man kay naa am réew ko Serigne jéggal ma maa joom as day jéggalu su ko defee yoon yu continuer te ñu xaar ba jot jot élection jot ñu wote. ku gañe ñu jot réew mi ñu continuer yal na yàlla defal nu jàmm ñi faatu suñu borom jéggal leen yërëm leen ñi fi des ta feebar yàlla fëgg seen bopp ñi am njàqare tiis yàlla saafara ko ñii eh, korite gi ku ci nekk bul yàq ndax boo korite ajjuma mbaa samedi dimanche daa am dépense kaltin dépense day kon dépense moom noppaluwul day continuer boo ci yemale lépp koo songur yorul dara def na ko ci kor tegal bul mere kenn kon yàlla yàlla dimbali sàmmal nu boppam sàmm télé bi sàmm ñi ko jiite ñëpp yàlla dafa leen jàpp Babacar jërëjëf ak képp koo xam ne yaa ngi ci biir diwaan gi yàlla yàlla sàmmal ñëpp oustaz yàlla bàyyi la suñu kanam sëriñ yàlla bàyyi la suñu kanam awa yàlla gën laa gunge ba nga am boroom kër gu baax mu téye la ci kàttu yàlla ak mbaaxam ñi ñëpp di ziar ñëpp sang sepp ñu ngi lay gërëm. Mm. jazakallahu xeyran. ok di gërëm bu baax a baax am mbégte contentement à chaque fois di bokk ak yow bi di gërëm bu baax a baax di gërëm bu baax a baax. Euh, di gërëm Babacar bi nga xam ne moom moo nekkoon technique bi Babacar nag da nga koo da nga koo pare la cinq incha allah rabi. Ah. ma nga am <coughs> nga xam ne moom moo di sanc bandon sanc bandon chez Madior Dieng à partir de 22h le lay am nag. incha allah. Mm-hmm. dañ ko waaj waa Leral ñu ñoo ko moom. incha allah waaw mm, 4 heures et demi conférence. vidéo club de don. macha allah taalibe yi def collecte de dons loolu gërëm bu baax a baax a baax ki nga xam ne moom moo décoré plateau bi Modou Lo Faye mi nga nekk foofu nga xam ne moom moo di Algérie numéro téléphone mi ngi nekk 77 453 21 34 moom moo ñu décoré euh, awa mm. nañ ma gërëmal suma bàjjen Aminta Xaali yàlla na ko ñëpp ñaaral mu gudd fan te wér way jur la bàjjan la lépp la. Mm-hmm. yàlla ko yàlla sàmm. bu mm-hmm. baax a baax a baax téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi toogoon di sànni gërëm sa fay biram penn waagaan lépp moom la ay ca di leen wax di daje ba beneen yoon incha allah xam naa tonton Gaye bi léegi dooraat. waaw léegi mu dooraat moom. ñoo mhm. dooraat bu soobee yàlla ak yeneen ak yeneen ak yeneen façon. Mm, beneen façon ñëw incha allah. mais imaam dina ñëw tënkal foofu. Mhm. bu saa su wax na lu am solo. koor gi na jàngal li ñu jàng mhm. ngi préparé baali. ak dellu ca la ne woon. baali kenn defatu ko. gaa ngi baali de. ah dina leen ko tëjee maanaam li jàng ci koor gi rek na nu noonu yàlla dimbali nu yokk naa file ya kenn koy na yokk ni sax gée gi ma jur wala ma julli gée naa am sax ñaar rakka yoo xam uniquement pour nuyoo ko sax borom. dëgg la yokkute la. Mm-hmm. léeg-léeg alxames ak altine nga di ko wor boole ci. Mm-hmm. daf lay jàngal lu bare bare yàlla ñu yàlla dimbali ci loolu. ayca bu baax a baax a baax yéen toogoon di ñu seetaan di leen jox dig daje beneen yoon incha allah rabbi fan yii néew dégg ñu gisaat ñëwaat seen thème pencum aada ak cosaan ayca jaajëf